waaw gaaw leen gaaw ngeen woote Production le dans son domaine. Ah, am lépp tawfeex sëriñ bi a may. gën noo asal ma faaqira. Cheikh Isaa wa faasa bil xurubi. wa ridwaan bil qidami. bil xadiimi. wa misbaawu tariixati bi sanaarat liman yamsi bilaa sulami seex saay fatanari bun adibun moo qisun yaqisun barun karaamun jawaadun muhjilul diyami seex saay fatanari bun adibun moo qisun yaqisun أكبر كلام جواد مهجل الديم ربي بنوين وبإبراهيم لقفر السنوب واكفني رجيما وكن بموسى وبجايسا وقيني دنيا وأخرى بوسا wa bi muhammadin rasulillah alay xayru salawaati laay summa alayhim liyahab imaana qad saabal islaam wal isaana bi hurmati siddiqi wal faaruqi julliya bil ixlaasi wa tawfiiqi bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaar leen ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa sun borom yàggal ko fi lool te mu wér ñoo ngi nuyu mboolem njabootug borom tubaa gépp xam ngeen ne sunu jataay bu sell bu màgg bi su ngeen ko gisee rek xam ne ñoo ngi koy amal ci ndigalul sëriñ abdou latif jenn moom maam cheikh isaa jenn yàlla na sama borom yàggal ko fi lool te mu wér moom njabootug maam cheikh isaa jotaay bi nag li koy waral xam ngeen ne at mu nekk danañ taxawal bis boo xam ne nii dañ koy def journée culturelle fàttaliku ak xamle maam Cheikh Issa jenn waaye bis bi itam jur nag yeneen yi alaaka yu ci feeñ mooy at mu nekk danañ tànn ci ñi nga xam ne ni ñooy bokki sëriñ bi wala seex yi dippee leen bis bi ngir fas yéene wane ni maam Cheikh Issa Diène kat mbooleem ko am lan woon ak sëriñ bi sëriñ bi boole woon na la ak moom ñoo ngi fii na ci diwaanu Masaalikul Jinaan eh, di nuyu baax jëwriñu alaaji Mbàkke yu fay di ko ñaanal bu baax sans borom yàggal ko fi lool te wéral ko moom it muy koo xam ne ku rafet lu liggéey bii la eh, loolu moo waral tey jii ci eh, jataay bi ñu am mbégte bu baax a baax dalal ci njabootug maam Cheikh Issa jenn fas yéene waxtaane nag tey jii ak dundam ngir waajale ko bés bi nga xam ne ni moom la ñu dëgmal muy le 28 incha allahu taala fañ ko daan defee ca CICES ndax euh, bis bi dana lamboo ak journal lu mel ni li ma tee muy xamle maam Cheikh Issa Dieng dana lamboo itam documentaire boo xam ne ni dañ ci dajale ay boromi xam-xam yu mag ngir euh, li nga xam mooy yaatal liggéey bi lépp nag ñu ngi koy def ci ndigalul Serigne Abdou Latif jenn di ko ñanal yàlla wéral ko te guddal fanam ak euh, rakkam Serigne Cheikh Alim jenn waaye Serigne Abdou Serigne Abdou Salam ak Soxna May Dieng waaye nag kenn Cheikh sa xel dina dem ci Serigne Sidi Naar Diène moom Serigne Naar moom Serigne Baara Diène yàlla na sama borom dëgëral ko moom itam kattanal ko te may ko wér ñu ngi nuyu baax Serigne Cheikh Diène mi nga xam ne nag mooy jëwriñu liggéey bi nga xam ne saa su nekk ci coordination bi ak xalaat yëpp day wëlbatiku ñëwaat ci moom tey jii nag ki nga xam ne mooy sunu kilifa jataay muy Serigne Abdoul Amine Diène mi nga xam ne nii sëñ Mouhamadou Lamine Diène mi nga xam ne bindikat la boroom xam-xam la di sëtu maam Cheikh Issa jenn ndax sëñ Abdou Salaam jenn ko meññ waaye itam xam ngeen ne def na ay téere yu am solo ci wane rek xam gi nga xam ne ni ñoroon na ñor na njaboot gi ci ci yaatal ko ak jële ko itam ci e, xam-xam yi nga xam ne ni bind nañ ko ci yoonu murid yëpp mu dajale ko di ci wax le e, ay bind ay téere yoo xam ne nii dana xamle dundug maam Cheikh Issa bii ma tee mi ngi ko tuddee Naylul Maxtaar fi nadmi wa tarjuma muqaddimati nahji qadaayil xaaj am na boo xam mi ko tuddee jaar-jaari maam Cheikh Issa Dieng am na boo xam mi ko tuddee téereb miraas waaye bii nag masaalikul jinaan yoo xam ne ni ci ay waati wolof la ko def mu nekk liggéey bu am solo loolu nag dana feeñal xam-xam bi nga xam ne am na ci biir njabootu maam Cheikh Issa Dieng gépp di wax ne li ñu tënk moo di taalibe waaye xam-xam bi moom mi ngi fi tamate ko sëkk ñu am mbégte bu baax a baax nag jaan la jan loo itam ci plateau bi ak maam Cheikh Anta Samb mi nga xam ne ni kenn la ci njabootu euh, ci njabootu Touba TV waaye nag ci yoon wi waaye nag Daaru Salaam di koo xam ne am nañ mbégte loolu ci feggoog moom ndax xam ngeen ni bisub ren bi nag dañ ko dippee maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak gaawaan waaye nag toftal ci sëriñ Afia rakkam ja nga xam ne sëñ Touba leen boole woon ñuy benn loolu moo waral sëñ Abdou Lahat Mbacke Aziz moom sëriñ Abdou Aziz moom sëriñ Afia moom it teew fi di borom xam-xam di koo xam ne ni ñëpp xam nañu taxawaayam waaye di satub itam sëñ Moudou Mamoun Niang mi nga xam ne ni ñëpp xam nañu xam-xamam euh, muy bokk fële ca Afia maam dama lay bàyyi nga nuyoo euh, soo nuyoo ak bokk yi ba noppi danañ ñëw ci présenté kilifa yi xam ne ci jotaay bi door a àndandoo ak Serigne Mbacke jenn sëñ Mbacke Sourang du mu ndax moom euh, xam naa ne boo gisee ba gis ko ci njabootu maam Cheikh Issa rek nga koy gisee ñu gërëm baax a baax sëñ Moussa mi nga xam ne moom tamit tubaarkàlla liggéey bu am solo bi nga xam ne nii euh, mi ngi koy amal ci njaboot yëpp dama lay bàyyi nga nuyoo rek ñu mën a dugg ci waxtaan wi euh, gën a yaatal li nga xam ne mooy waajtaayal bés bi waaye ñëw itam ci li nga xam ne ni mooy programme bi ñëw itam ci appel bi nga xam ne ni ndigal li nga xam sëriñ bi joxe na ko njaboot gi ngir ñu war fee teew sëñ Maam Cheikh aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala badri tamam allahuma salli ala nuuri salaam allahuma salli ala miftaahi daari salaam mm-hmm. gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi di sayiduna muhammad ñu ngi yaakaar di wóolu cheikh ahmadou bamba xaadim rasoul mm-hmm. ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa mu yàgg fi lool te noonu lañ koy ñaanale mbooleem umma islam bi yëpp mm-hmm. ziyaare bu baax sëriñ Abdou Latif Diène mi nga xam ni euh, nos na njaboot gi yëpp boole leen ci genn buum muy fédération bi nga xam ne mooy liggéeyal Cheikh Issa muy réew mi ak ci bitim réew. Mm-hmm. yàlla toogaayam bi yàgg ci mbooleem njabootu Cheikh Issa gépp te wéral ko te yàggal fi ay rakkam ak i doomam ak sëtam yi mu jiite ak taalibe yi. Mm-hmm. ziyaare nag bis bi kiñ ko duppee ndax nag wax dëgg yàlla dafa mel ni dañ ko dañ koy defal Cheikh Issa mm-hmm. duppewaat ko Cheikh Issa rek. ndax euh, euh, Darou Salaam ak kër Cheikh Issa jaxasoo nañ lool. Mm-hmm. ndax tey doo demee Darou Salaam ay sëti Cheikh Issa nga fa ñoo xam ni seen i waajur jigéen Cheikh Issa jur. nga ñëw njënd ay sëti maam Cheikh Anta nga fa. Mm-hmm. loolu nag day wane ni la ñu ca keppaaruk sëñ Touba. Mm-hmm. Cheikh Issa ku bokk ak sëñ Touba wala ku laal ci sëñ Touba rek. Euh, jàppe na la war may sëñ Touba ji. fonk la ndax sëñ tubaa ndax moom lépp léppam ci sëñ tubaa la tàmbalee ci la yam mhm. kon ziyaare njabootu maam Cheikh Anta gépp sëñ Abdoul Ahad mii nekkal leen fi moom sëñ moom sëñ Abdoul Aziz sëñ Afe la ko dalee ca kër Serigne Mouhamadul Mamoun Serigne Abou Mouhamed ba ci kër Serigne Abdou Gora Thiatou maam Cheikh Anta ak mboolem ak fàtti maam Cheikh Anta yëpp ak taalibe yeeg Daaru Salaam gépp euh, ziyaare ñu nekk ci jotaay bi yëpp mbooleem njabootu Cheikh Issa gi fi nekk sëñ Mouhamadou Lamine mi nga lim ak sëñ Moussa suñu xarit bu yàgg bi sëñ Mbacke Sorang di seetu Cheikh Issa moom tam ziyaare Cheikh Cheikh Issa yi fi nekk ak taalibe yeeg fédération beeg ñëpp di bég nag sëñ Amidou di àndandoog yow ngir liggéey bii nga xam ne tey dañ koy defal Cheikh Issa duppee ko ñaari doomi soxna Anta Ndiaye yooyu nga xam ni kii ñu daan dimbali di ñu may koppar kii ñu daan jiital ju may kabar salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf maam Cheikh euh, loolu am na solo lool ci ubbi bi xam nga bu ñu tuddee njaareem ah tudd récompense ku fayeeku ci yoon wii dinañ cof sànni Cheikh Issa mhm. ndax tey réalisation bi Sëñ Tuubaa njëkk def te fekke ko te mu am ci mbégte maam Cheikh Issa la joxoon di liggéey ba muy jëwriñ ja waaye nag mook mhm. na ni sëñ Afe mel ak sëñ Gaawaan kon ñoom day mel ni mu naa leen daje mu ne neex na waaye ndajam njabur Cheikh Issa rawatina seen journée bi ñoom dañ lay noppal ndax dañuy coordonné ba nosu mhm. door a ñëw woole ne ñëwal jëf te loolu bokk na ci li nga xam mooy doxal liggéey bi ñu ngi nuyu baax sëñ Moussa Diène comme ni nga ko waxee moom sëriñ Mbàkke Marema Euh, di ziyaare baax sëñ Abdou Latif moom itamit euh, moom Serigne Chang bu jenn ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare ak Serigne Mbacke mi nga xam ne moom benn lanu te it euh, xam-xam bi mate ko sëkk ñu ngi ziyaar baax soxna Musli jenn itam ak soxna Bintu jenn moom it mi ngi ci jataay bi nuyu itam sunu xarit sunu wëllëre di jàmbaar lool di borom xam-xam di koo xam ne li nuy def lay def te defe ko ci anam yëm gën a méngoog jamono méngo méngoog itam njàngaleem Serigne bi muy soxna maam Jaara Cissé bu Lamp Fall TV moom it ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax kon ni may def maam Cheikh mhm. damay tàmbalee kaddu gi rek jox euh, Serigne euh, Serigne Serigne Abdou Latif Soin bu mu ubbil ñu jataay bi su noppee ñu door a ñëw ci Serigne Mbacke Sourang jàpp naa ne jataay bi lépp rek xamle gi li ci am solo mooy ñëw ci journée ba comme ni ma ko doon wax ci at yi jàll ndax boo ñëw ci bis bi. dinga fa nekk ba jóge fa doo yëg lu dul yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa waaye di nga xam itam ne maam Cheikh Issa Diène mii bu ko Sëñ Tuubaa bàyyee woon liggéey bi moom rek mu rek la àdduna si loolu nag day wane ne sëriñ bi moom ñi ko wër ñëpp kenn ku ci nekk da bokkoon ca kàngam ya foog faboo ànd ak sëñ Tuubaa kon sëñ Abdou Latif dama lay bàyyi rek nga ñëwal ñu ci bis bi euh, ak itam ki nga xam moom la ñu fas yéenee waxtaane le 28 incha allahu taala ñu door a ñëw dalal sëriñ Mbàkke incha allah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa radiyallahu an sayxina al awwaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mboolem ku fi teew nuyoo boobu ñu koy teg sa loxo sëriñ am mm-hmm. ngir nga jottali ñu ko mboolem ñu ne ci jataay bi ak uh, réew mi ak bitim réew yëpp waaye di nuyoo ko ziyaar suñu kilifa mm-hmm. sëriñ Abdoulaye Diouf Dieng mu maam Cheikh Issa Dieng di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér nuyoo boobu di ko teg ci loxoom ngir mu jottali ko mm-hmm. suñu kilifa alxalifatul am di taifatul muridina mm-hmm. Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke mm-hmm. euh, comme ni nga ko waxee dañoo jub bis boo xam ne yow bis bi moom miin nga ko waaw sama donte nag da nga daan wàlli si waaye tey da aay kon nag euh, bis boobu liñ ci wane rek mooy li nga xam ne moom moo tax yàlla yónni ay yonent moo tax yonent yooyu yàlla sàkkal leen ay àndandoo ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa mu sàkkal ko ay saxaaba waaye noonu la ko sàkkal tam ay boroom xam-xam yoo xam ni ñoom ñoo dond yonent yi ci biir borom xam-xam yooyu koo xam ni mënees na ko ci tudde waaye weesu na lu ñu tudde borom xam-xam muy Seex na Ahmadu Bamba moom nag borom bi subhaanahu wa taala mhm. def ko mu nekk xaadimu rasul nekk koo mhm. xam ne dafa ñëw mhm. ngir liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tool bi nga xam ne moom la fi yonente bi bàyyi woon te liggéey booba ba mu sóoboo ci waar bi ba léegi moom moo ci nekk waaye itam ay ndawam rek ñoo ci nekk maanaam képp koo xam ne ci tool bi ngay xëy rek moom nga ciy xëyal dëgg la yàlla dogal nag moom mu àndoon ak ay mag mag ñooñu eh, nekkoon ak moom ci tool bi. di ko ci liggéeyal di ci liggéeyal yàlla. mu am ci kenn koo xam ne moom la ñuy wax maam Cheikh Issa Diène. mu ne ci koo xam ne ku ràññeeku la. ku ñu xam la. waaye ñoom liy firndeel ni liggéey bi nga xam ne. moom la leen sëriñ bi doon liggéeyaloo liggéey bu nangu la bu sax. mooy ginnaaw bi sëriñ bi fàddoo. ndax jàmbaar dëgg dëgg dëgg fi ñu koy xamee. jàmbaar ji nga defar. mooy yow bi nga fàddoo mhm. ki la wuutu doxin mi mu amoon mhm. waaye sëriñ bi ci boppam ginnaaw bi ñu ko noppee gis mhm. mag ñi nga xam ne yaroon na leen ay njabooti boppam ku nekk yóbbu nga waar yi foo xam ni comme ni nga waxee day mel ni bu doon yow keppit waaru àgg foofu kon nag jàmbaar kenn la ci muy maam Cheikh Issa Diène dëgg la xañ na boroom xam-xam yaa ngi dinañ ci ñëw waaye ci fi may gën a waxee mooy moom jëmm la woon joo xam ni suñu borom dafa ko séddee woon mu doon ko fonk xaqiiqa waaye mu mhm. doon ko fonk sariya mhm. maanaam te loolu bu ñu seetloo mhm. boroom xam-xam yi nga xam ne xóotal nañ ci njàngaleem sëriñ bi danañ xam ne sëriñ bi loolu lu ko yitteeloon la maanaam diggante sariya ak xaqiiqa moom nag daf cee fés ndax euh, ginnaaw bi nga xamante ni si ne sëriñ bi yiwee na ko ba mu wëyal waar wi maanaam ginnaaw bi mu jógee ci wetu sëriñ bi sëriñ bi dem ci géej gi ba siwaat bokk na ci gis-gis yi mu amee woon fi mu ne jamono jii ñu jublu nii maanaam ñu jëm ci wàllu euh, di laaj réew mi li nga xam dañ koy laaj war nañoo inspiré wu ci yarub Serigne Touba waaw ndax maam Cheikh Issa mhm. seetlu ci ak dundam maanaam fépp foo xam ne sëriñ bi dafa mos a nekk mhm. li koy gën a yitteel mooy lu autonome maanaam day fexe ba mhm. sëriñ bi lépp lu muy yittewoo ca barab booba te moom diggante gi mu nekk diggante mag boroomam mhm. daf koy doy sëkk mhm. léegi nag ñi ko wër dafay aajoo ñu amul nit ak di def yëfi nit mhm. di indi yëfi nit te loolu sëñ bi du ko sàkku moom nag suñu borom daf ko ci defoon ab xel bu yaatu mën nañoo jël rek lu mel ni bi mu nekkee ci leen jolof nga xam ni euh, mois mois de janvier 1907. waaw dafa nekk. ba mu fa nekkee 1907 1908. bokk na ca xalaat yi fa Serigne saa def. mooy defaral ko fa ab pour. nga xam ne kon dafay autonome ci mhm. wàllu woowu waaw ci boulanger mhm. ba léegi pour ba ma nga fa mhm. muy muy ceen jolof màggal gi sax mi ngi jub loola benn gis-gis la ci bi mu ñëwee njaareem bi mu jógee njaareem maanaam 1907 mu nekk ceen jolof ba 1902 mu ñëw njaareem 1912 euh, mu ñëw njaareem noonu la Serigne Issa continuer mhm. maanaam boo demee njaarim di nga fa fekk ay teen yu bari yoo xam ne mhm. gis-gis bi mu amoon ci def ko fa rek mhm. mooy Serigne bi nekk mbiram nekk lu otonom nga xam ne moom gannaaw tubaab yi moom waxoon na ni du ma tàllal sama loxo mukk di ko jëme ci am nasara dëgg la la nit mënta ñàkk ci ak dund ak ñu ko wër Cheikh Issa day fexe ba loolu jege sëriñ loolu ci wàllu maanaam mën nañ koo tuddee ci wàllu zahir waaye wàllu baatin tamit liy feeñal mbiram dëgg-dëgg jóge ci sëriñ bi mhm. ba sanc ay dëkk mhm. bépp dëkk boo xam ne daf koo sanc maanaam noonu ma doon doxee ci sëriñ bi noonu lay doxee ci dëkk maanaam day fexe ba lépp lu fay nekk mu fàgg ko mhm. ba nga xam ne taalib yi dinañ ko mën a jariñoo ngir ñu bañ a nekk di dem di sàkku ci lenn ci nasaraan yi waaye itam noonu la bàyyee woon xel li ñuy tuddee ay ponk lislaam maanaam fi mu ne li alxuraan di wax ñu koy tuddee al ummalu zakat maam Cheikh Isa fi ne ci biir këram fexewoon na ba am lu ñu tuddee ummaalu zakat maanaam mbooloo moo xam ne mhm. dafa leen a sàkk ñuy def lan ñuy def bu laaj asaka jotee ñu wër laaj ko bu mhm. buñ ko laajee ba noppi wëlbatiku séddalewaat ko mhm. te loolu boo demee ci alxuraan na nga koy fekk mu sax ci mhm. bokk na ci jàmbaaram jooju suñu ahmad daam surang ak ku ñuy wax sëriñ mbay jang ak ñuy wax sëriñ aadama jàllo ñett ñi ñoo nekkoon wamaalu sakaat waaye yitte woowoon na tamit mbirum xaqiqa ba dëkk bu mosaan a sanc loolu dafay baax jamono ji dafa dafa yàqu dafay baax ñu koy fàttaliwaale ñoom seenum njàng la maanaam bépp dëkk boo xam ne daf ko mosaan a sanc dafay wut ab yëglakat boo xam ne da koy yónni ci biir dëkk bi muy dox ak jumtukaay fu kàddu mën a àgg benn bis daf koo def yëgle kat yëgle katam ñu wax sëñ ma yaasin sekk nga xam ne dafa dugg ci dëkk bi di wër ci njenn lagan di wax ni Cheikh Issa nee na képp koo xam ne yaa ngi jëw na ko bàyyi di wax ni Cheikh Issa nee na na ngeen bàyyi wax lu dul dëgg Cheikh nee na na ngeen bàyyi naanum ñoll Cheikh nee na na ngeen bàyyi tux Cheikh Issa nee na na bi nga xam ne moom la rëdd mhm. di njënn lagan mhm. képp koo xam ne mën ngaa sax ci ndigale yàlla yi mhm. na nga wóor na la wóor ne mën nga fee sax ak moom waaw képp koo xam ne nag mënoo sax ci ndigal yàlla maanaam mënoo bàyyil yàlla yi tere nga abal ko borne bi yitte jooju nag mu amoon ci nit ki li tax mu am ci moom yitte jooju moom dafa fas yéene buy jox Serigne Touba. Mhm. ni mu ko doon joxe ci saaxir maa di def lépp loo xam ne daf koy jox qualité lay nekk. Mhm. noonu la noonu lay fexe ba ëllëg jëm bépp jëm bu muy jébal jébal Serigne Touba. Mhm. dafay nekk qualité. te qualité boobu mooy xalbun salim. dëgg la te yaakaar naa yàlla loolu la laaj. yawma laa yanfau maalun wala banuun. illaa man ataa Allaaha bi qalbin salim. loolu nag bu ko sa Serigne saa jaar moom ab taalibam foofu ci saaxir ba àggal te wala mu fàddu ab taalibeem nekk fii ci àdduna mhm. taxul mu bàyyi ndax dégg nañ ba tàyyi muy wax ni mhm. ah moom mhm. ab ab saaboom la yor akum ndoxam te mën a fóot kon loolu da ngay da ciy dégg ne moom dafa fas lépp lu muy jox sëriñ ba ci roo loolu dafay nekk qualité dëgg la loolu nag da yaakaar naa dafay baax bu ñu wootee bis yu mel ni xaj na bu ñu demee ba ci bis ba ci lay gën a yaatu waaye ñu bàyyi loo ko xel nit maanaam ñu bàyyi xel ni sëriñ Issa ku amoon gis-gis la ci wàllu tabax wàllu defar mhm. ci wàllu àdduna mhm. waaye gis-gisam fi mu gën a soree mooy mhm. ëllëg yowmal xiyaam dëgg la waaw maanaam xolub doomu aadamam daf koo yitteel dëgg la te loolu firnde ji mooy mënoon na ko yemale ci bi mu fi nekk di tarbiya rek waaye nag dafa teg benn condition maanaam même ku ne ci leneen tamit bala mu laa jébal sëriñ bi moom di nga seet wicc dëgg la loolu nag ñoo ngi koy fàttali suñu bopp di ko fàttali mbokki taali bi di ko fàttali jullit ñëpp ñu bàyyi ko xeet bu baax a baax xam naa dañ <laughs> jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Latif Sang bu euh, kaddu yi am na solo te bu fekkoon ne yem na ci jataay bi nii rek mu doy mm-hmm. xam nga maam Cheikh mm-hmm. sëñ Touba lépp lu muy def loo nit te loola di lu engagé l'islam mm-hmm. dana ko seet biit ak biti ba xam ne lii lu seet la soo rombee njaareem xool jumaa ji ni mu méngoo jamono da nga naan 2023 lañ ko inauguré grâce à Cheikh Issa lu sëñ Touba bëgg la ca gën la koy wutal ba muy daggal njaboot gi ay billets ngir ñu dem wuti Mmh. li sëñ bi bëgg lu méngoo jamono mmh. booba tey taxoon mmh. moo tax ku ne amee nga ko récompense nag moo tax sëñ sëñ Moussa Ka ne ko ñaag ci xarnu bi tibbalu ko de xam nga tibb moom da ngay dank ñaag mooy loo xam ne ki nga koy jox da nga ko koy yéene loolu la sëñ Tuubaa defal Seex Isaa la nga dugal sëñ Mbàkke Sorank jërëjëf <laughs> euh, Serigne Amidoun ah. euh, Serigne jërëjëf sëñ Abdou Latif euh, mu mel ni Serigne Am la ñuy jox kaddu gi waaye ni ma déggee sa wax daal Seex dafa équilibré woon te xayrul umuri awsatuha wa afdalul umuri awsatuha dafa mel ni daawul bàyyi sharia fenn waaye daawul bàyyi aqiqa fenn mm-hmm. Mm-hmm. loolu nag li li ma ci tiire man leen rek la mm-hmm. mooy doo bëggee gis ndaw lu sel set wicc te sëñ Tuubaa rek na ci moom te du rax sëñ beeg dara demal njeen nag da nga fa gis ay ndaw yoo xam ne dañuy set wicc dëgg la sëñ bi rek duñ ko rax ak dara ba pare yor pësteef ba sëñ bi na na sëñ bi daan tarbiya njaarim nag ñu yor pësteef yooyu xam ne saa boo tuddee seen seenub sëriñ ñu tàggug seen sago te lépp di dëgg mhm. Cheikh Issa moom dese na loolu ba léegi mhm. te dee sax dàkk di ko dese mhm. kon sëñ Mbàkke bismillah amasbilahi samil alim min sheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadi lasina stafa wajal kalaami rachidan wa nawir wa qalbi arshida mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar di jiital si nuyoo bi sahibal fadila mawlaana cheikh mouhamadin al muntaqa xafisa wala waraa di ñaanal itam Serigne Abdou Latif Diène mi nga xam ni eh, moo toog toogaayu maam Cheikh Issa Diène di ñaan borom bi tabaaraka taala dolli ko ak wér ak mboolem njabootug eh, Cheikh Issa Diène gépp waaye di siyaar itam njabootug Serigne Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa mhm. maam Cheikh mhm. itam di siyaaru baax Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne moo toog toogaayu Serigne Afe. Mhm. daanaka boo leen tuddee da ngay mën a jël ñëpp eh, dugal ci biir ndax ñoom ñooy bunt yi. di ñaan borom bi tabaaraka taala itam sàmm leen. Mhm. ba li ñu yéene liggéeyal seen waajur yi liggéeyal ko si Ahmad al Xadim. Mhm. borom bi kàttan na leen ko ban def si lu kawee mhm. seen njort. waaye itam di nuyu itam Serigne Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ni kilifa si jotaay bi mu yóbbaale mbooleem njabootuk euh, borom gaawaan gépp Serigne Afe waaye di nuyu itam Serigne Cheikhouna Mbacké Serigne Aline Badara Badiane ak mboolem ñi xam ànd nañ ak ñoom. waaye itam nuyoo njënd bi itam ñu koy teg ci jataay bi ñu koy teg ci Serigne Mouhamadou Lamine Diène Chaairul Xadim mi nga xam ne mi ngi liggéey liggéey bu bu ama am solo mhm. boo xam ne rafet nañ njort ni bu ni woon Cheikh Issa mii nii toog yaakaar naa mën naa bañ a soppi doxin ndax si tool boobu lay xëy si lay gont dañu bàyyiloo xel bu baax xam-xam ndax Cheikh Issa wax na ni li mu mujj a bi bi muy wàcc ab liggéey li mu commandé ak seegul téere xam-xam la woon kon loolu ñu bàyyi ko ne ishaara la ab junj la boo xam ni ñu ñu bàyyi ko xel bu baax te xóotalaat eh, wàllu xam-xam ñi ni ñi niy waxtaana nag xam naa ni kenn koo jëloon si ñoom. mu mu mm-hmm. maanaam mm-hmm. mu mat ab journée <laughs> dëgg la jëlee naa na nga bëgg leen a tënk si ay minutes. Mm-hmm. borom gaawaan Serigne Afe. Cheikh Issa Dieng dañuy dugg si. ni suñ tubaab doon wax ne si ñooñu laay feeñal sama jaamu yàlla. maanaam kafaani xafisun maa ne woon jumlatal ida wali qaada ahbaban bihim ushiru nuska nee na am naa ay taalibe yoo xam ne bu la neexee man ngeen a ñëw si man xool xool leen leen kon ñooñu koo si jër rek day doy ñuy ay nit ñoo xam ne fu nekk ngëneel fu nekk rek jàmm am lillaahi qawmun isaa xallu bi man manzilatin xala sururu wa saaral juuru insaaru fu nu wàcc tabe wàcc fa fu nu demee tab ànd ak ñoom fu ñu wàcc rek fa ay na sirtum mhm. maanaam nu mu ko waxee sax waaja nee na ko taxyaa bihim kullu ardin mhm. yanziluuna biha mhm. ka annahum fii bi biqaa'il ardi amtaaru nee na ñoom suuf suñu wàcc ñu namm leen booy xool seen njariñ day mel ni ceeboo juy wàcc am taw ci suuf soo xam ci nangu nga jël ab taw xam ñoom fu ñu wàcc rek lépp nga ne lay nag ñooñu ñooñu koo si jël rek si ñoom ah, da lay jox misaal moom di leen fàttaliku nag lu baax a baax la pour xam histoire ndax dane dane iqra taarix isfi al abar dalla qawmun laa yadruuna al xabar ne na ngeen jàngi seen histoire ba xam ko ndax nit boo xamul histoire am xam fu muy teg tànk dëgg la ah. te ñi ku leen jàngat xam li nekkoon génn ñu abdullahi wa xadimi rasuli maam suñu tubaa taalibe yëpp da leen a tënkoon ci turam woowu bu ngeen leen seetloo duñ génn mukk xitma ak ibaada ñëpp koo si jël rek ci wàll googu lañuy lañ dañ doon lañ doon yëngu ñuy ñoo xam ni boo ci jëlee ku ci mel ni nga xam ne mooy maam Cheikh Issa Diène ñu wut ab bis dara jaale ko di ci fàttaliku ñaari kàngam yi Cheikh Anta Borom Gaawaan ak Serigne Afe xam nga Serigne Afe dama lay wax ne la doy na ngëneel koo xam ne suñ ci moo la wax ne la yaay njëkk wàcc sa mag ji Borom Gaawaan nee nañ bi ñu koy woo njaareem ni ko Cheikh ànt day tëdd na mu di ko seet bi mu ñëwee da koo xool mu toll ci étape boo xam li ñu xam ci doomu aadama mhm. ci ak nattale ku toll ci mhm. étape bi amaana borom bi rek lañuy ñuy xaar mhm. mu amuk jaaxle ci logo sëñ bi waxoon te moom dara jotu ko nee na bi mu demee mu xalaat ne de sëñ bi new nag yaay fi njëkk a jógee te moom dara jotu ko mi ngi seet si ku tawat kon foofu lan mooy mbir te sëñ Tuubaa waxam du dañ nee na ku ñu wax sëñ Mor Faati Touré ab jarbaatam la ñu nekk si kër gi danañ ko xam moo ne ko kon tey ngaa dem te dénkaane xam kuy ba tey ngaa dem dénkaane Euh, boo fi jógee nu ñu def mun leen man suñu affaire ne man duma ma dénkaane ndax li may dund lépp xaw ma fu ma fi tooñee sama borom bay wax astaxfirullah xaw ma bàkkaar bu ma fi def ba di ko tuub waaye kon naa toog fii rek xaar ba xam dana noppalu gém mhm. dé mhm. yàlla dogal ne nañ bis ba ba mu ko cherché mhm. talaata la wàcc ab liggéey tàkku saan ginnaaw bu mu jullee tàkkusaan ba noppi am na ñun sax si biir julli gi waaye alaa kulli xaal yi nga xam ne delluwaat na ci imaam gañ ko dénkoon talaata ñu teg si àllarba alxames si guddi borom gaawaan wàcc. Mhm. xool loolu si nga xam ne comme liggéey bi Sëñ Tuubaa. Mhm. feeñ na foofu si ci ci ci ñaari kàngam yooyu. Mhm. Maam Issa Diène nag moom boo ko boo ko jëlee jàngat ko ci ay tomb. dafa bokk ci ñi nga xam ne yonent bi alayhi moom moo ko tegtal Serigne Touba. maanaam yonent bi alayhi moo ko tegtal. Serigne ci tënk bi mu tollee si di jàng ba yor ab jukkeem ba àgg suratul xajj bi mu jàngee ba ci fakk ay min na ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya xaawiyatun ala urushiha wa biirin muattalatin wa qasrin masid nee na foofu la ko lu mel ni nelaw dikkalee mu gént gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ak leer jóge si weewu baaraam bi fi suñ tubaa nekk si tubaa moo dem tàggu waajuram mm-hmm. Mm-hmm. daan foofu li nga si dégg moom kon yonente bi ci mm-hmm. damay tëb lu bari waaye yonente bi moo ko tegtal Sëriñ Tuubaa nga nga sukkandiku si xasee bi naan dalla alaya al ulama wal man laa yasaalu quwati wa awliya nee na bi nee na moom mooy tegtal Sëriñ Tuubaa wàllu yu yu mat yi waaye mooy tegtal boroom xam-xam itam Sëriñ Tuubaa nga xam ne kun ni am na cër tam wan ginnaaw Sëriñ Tuubaa wala neex man ngaa tey si moom kun ni boroom xam-xam la bu kàggule bu fees dell ak kàggule te du wax si Sëriñ Tuubaa lu leer wala neex man ngaa tey si ay mbiram ndax képp kuy wàllu yu bu mat am xam-xam bu nuy jëfee fokk di nga nangul Sëriñ Tuubaa dëgg la te loolu foofu ngay sukkandiku dana la an layal ulama wala awliya man laa yasaalu quwati wa hawliya noonu la def dem jokk ci Cheikh Ahmad al Khadim mu liggéeyloo ko wàcce ko wax na nag ba mu tàmmulee liggéey ba ba nim noppaloo 19 octobre 1948 tekkiwul laxasaayam diirub loolu lépp tekkiwul laxasaayam mm-hmm. te it xam na ne Sëriñ Tuubaa nit mënu see jariñu te mm-hmm. liggéeyul dëgg la ndax moom li mu am ci yonent bi lépp ci liggéey la ko amee mm-hmm. xidmatu xayril alamina salabat mm-hmm. liyal karamati maan mm-hmm. fan salabat nee na mbooleem karama yéen gis ma am ko nee na maa ngi ko jëlee ci liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam te booba lépp ngi fi jullee ngi fi woor a ngi fi asanga kenn du ko doye dal ndax charia la waaye dasaa nekk ba mu mat sëkk nag dem liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu def lii mu ne mulkul ali baaxil xadim ni asna xadim nee na nguurug suñu borom nga kawe itam moo def mboolem ñi liggéeyal yonte bi a kawe na ni bi muy liggéey yonte bi tam musta toqi musta tay lam yaxone fi xidmati xisun wala malaalun aw maa yujibu taqawula nee na bi may liggéey yonte bi saa sallam musuma tayyi musuma toqi du tàngoor du sedd mhm. si la nekk si la nekk nekk si nekk si ba yonte bi alayhi salaam fay ko defal ko loo defalu ko kenn. dëgg la loolu ko yonte bi alayhi salaam faye nag. Mhm. moom la teg mhm. daal di woo waa jéeri ji ak mhm. waa géej gi ni leen kaay leen. ku bëggee jariñu ñëwal nga ànd ak man liggéey. la mboolem ña koon laxasaayu liggéey ànd ak moom tey ñoom ñëpp cëruñu. dëgg la mu dig leen nag si liggéey bi. lu kawe kawe. wax na ne barakatun bi bi nay li xayri niama tunsil muridina ana alxidma nee na coono yi lekk si ab liggéey nee na su ma la fayee nga fàtte ko dëgg la de sëñ sëñ euh, sëñ Ibrahima Diop Massar ni ko ni ko. Mhm. képp koo gis muy liggéey mhm. waxat yaatari yow man mhm. malaalun li xaadimi waaye nag wa xaadimuhu maa in aadaahu malaalu nee na képp koo gis muy futtiku du liggéey bis dana ñëw mu tooy ni damaa sonn waaye nee na kuy liggéey Sëñ Tuubaa moom du toqi du sonn dëgg la kon mag ñi noonu lañ meloon ba séddu ci Sëñ Tuubaa dëgg la dëgg la ne boo séddoo si li ma la dig mooy béy du ñuy jàkkaarloo si lim diggee la bokk na la seen a saari on li xidmati fa lahumu diyaaru wastal janna a daamu fi xidmati waxab lahum maaraamu mm-hmm. na liggéey Yonent bi sallam Sëñ Tuubaa da nga jëlee fajuk danga ci jëlee xam-xam boo xam amul fu muy yem mhm. da ci jëlee ay karaama mhm. di nga si amee ak ngërëmul yàlla mhm. waaye da nga si amee njëgal goo xam ne amul fu muy dëgg la lépp si liggéeyal Sëriñ Tuubaa lañ ko jëlee ma jox la si nag benn si rek boo xam ne xëy na moo la ko jàngee daana doy sax aw waxtaan luy wane ne Cheikh Issa Dienne liggéeyam bépp mi ngi ko léppam mi ngi ko tëggoon si liggéeyal Sëriñ Tuubaa foofu dama la si jox benn bind boo xam ne sëriñ Mouhalim ñëw Dagana moo ko seere ci Cheikh Issa. Moudou Lamine mooy mooy maamu sëñ Mouhamadou Lamine mii. Chahirul Khadim Chahir bi <laughs> waaw. bi muy taarixal masjidu Touba. day def kilifa gu mu tudd la. ngir taxaw goo xam taxaw goo ko ci liggéey bi. Mhm. waaye nag neen bi mu àggee ci Cheikh Issa daane wa minhumul murid al maaruf mhm. bi husnil qiyaam fi kulli muhimmatin Issa Diène nee nañ ne bokk na si ñi nga xam taxaw nañ ci liggéeyu Touba bu réy boobu mm-hmm. kii nga xam ne ab murid saadix la yitte ju sëriñ Serigne mu Moussa am mm-hmm. taxaw na si ku ne nag noonu lay tudd taxaw waaye dañu nag moom wala ba isa bi sikri tarafi min xabar yi nee na Cheikh Isa moom fokk nag ñu taxaw si moom mm-hmm. a si ndiggante waaw <laughs> ndax kenn du ko romb jàll ndax jëfam moo ni demee mm-hmm. ndax koo xam yaay xibbul xadim mm-hmm. wa misbaaxu tariqatihi bi istana rek li ma yem si bila sulay moom mooy soppib suñu tuwaa suñu tuwaa ko bëggaloon moo ko tàggaloon nee na mm-hmm. buur bëgg la maa ngi bëgg buur itam nee mooy lamp yoon wi nee na képp ko xamul fooy jëm boo ko gëstoo xam fi nga teg sa tànk ndax xamoon na suñu tuwaa moo tax nu mu jëfee rek ku ne jëfee am ngërëmul suñu tuwaa lu Moussa def suñu tuwaa ne xaaka saa te it du wax lu dul dégg mm-hmm. nee na lu mu def noonu la. Mm-hmm. kon moo tax dañ ko daarooy si ni muy ni muy jëfee moo tax mu ni kon. Mm-hmm. fokk ñu taxaw ci jëmm jooju as tuuti. daan day faxat kaana xasana qiyaam maa cheikhi mun subtidaay amrihi nee na keroog ba mu sukkee jébbalu. ba ni sëñ bi wàcc ab liggéey muy dund ñu di ko teg bët. musta soppi ab taxawaayam. léppam dafa rafet. nee na nag wa mimmaa yuxkaa anhu annahu kaana qabla al-fatxi yaduuru fi talabi al-hidaaya wal xidma li cheikh nee na bokk na ci li liñ mën a wax si moom nee na njëkk muy cheikh taalibe yi di bëri moo daa wëral boppam di def li ñuy wax kaaje moo daa wëral boppam di am ànd taalibe yi di indi ci Sëñ Tuubaa mm-hmm. Mm-hmm. fa mahma wajada cheyan qalla aw kasura mm-hmm. amaluhu maa cheikhi amaluhu maa man maahu ila cheikh nee lu mu am moo xam dërëm la moo xam ñaar dërëm la moo xam ñett dërëm la mu gàddu ko ànd ak taalibe yi ñu ñëw ci Serigne Touba waaye nee nag falamaa futiha alayhi nag ba yàlla ubbee bunt yi nag ñëpp di jokk xewal gi bari nee na xafaral abaar ci la commencé nag di gas ay teen boo demee si njaarim lu mat juróom-ñaari teen yoo xam si ak si ak dundam signé nañ ko yenn yi daarul ma naan yenn yi ci yéen jolof barab bu sëriñ bi mu sa nekk rek waaye wa masaral am saar lim sos si ay dëkk itam wax nañ ni mbooleem seex yi àndoon ak sëriñ Tuubaa lim ci góor si ay dëkk pour pour sàkku addiya kenn xamul nu mu nu mu nu mu nu mu nu mu nu mu toll te nee na loolu mooy bi nga xamee ne mbooloo mi euh, bari na nee na waxadama say xidmata siddiq nag nee liggéey na sëriñ bi sëriñ bu dëgg liggéey bu dëggu boo xam kenn du ko sikki sàkk te sëñ Fallu daa wax ne li anna bil xidma saadiqa ma niyati saaliha tasluhu al ahwaalu kulluha la xayru nee lépp luñ bëgg mu jàgg nañ xam ne ci liggéey bu dëggu ak yéen ju sell rek la mën a la mën a amee mu ni nag fii kulli mawtinin lam tafutu xas la nee na sëñ Isaa bépp barab boo xam Sëriñ Tuubaa mos na koo sanc mhm. wala ak njabootam nekk fa mhm. su fa rate occasion fokk jëf fokk jëfam defam dem ca dëgg la da ngeen bàyyi kii wax moom moo nekkoon aminu sirr mhm. ku jege woon Sëriñ Tuubaa la te dawul waxe bakka nee na fi kulli mawtinin lam tafatu xus waaye walam yataqaddam alayhi ahad nee na amul kenn koo xam ne raw nga ko ci Sëriñ Tuubaa te loolu bi mu koy bind daane nag waxu suusan fii njaarim nag nee na nag yàgg na di ko def mm-hmm. liggéey boobu tam def na ko lu njëkk sëñ bi dem si géej gi mm-hmm. ak bu demee si géej gi mm-hmm. waaye nee na rawatina nag bi mu nekkee njaareem nee na njaareem moom faxat kaana moom nee na xudwatal jamia nee na ñun ñëpp seex bu sa xel dem rek nee na Seex Isaa nga daa diglu mu nekkoon royteeful ñëpp daane wa alayhil madaar fi ra'yihim yëpp si moom lañ koy delloo waaye bi nasihati wal infaax fu mu toll nag di leen laabiré ci xelam mu rafet ma mhm. waaye di jël alalam di leen jox mhm. sëriñ Mamadou ñëw daga nee na maidatuhu la tarudu anha yadul ghina wala alfaqir mhm. nee na ay ndabi teraangam borom alal du ko delloo waaye ku ñàkk itam du ko delloo ndabul teraangam heure bu ñëwee ñu man koo jëfandikoo loo tax mu ne maidatuhu la tarudu anha nee na falam yasal nag ala taraqi fi l xidma nee na dañul nag di liggéey di yéeg di liggéey di yéeg daal nag falaa tas al an xusni xidmatihi fil jaamia nag awal neen liggéey mu rafet nag si jumaa yi jumaa ju njëkk ji moom moom bu ko laajte nam si taxawee kenn xamul mu mel nga xam ni loolu da nga xam ne kon ñoom seen dund lépp dañ koo jaayante pour liggéeyal sëriñ sëriñ Tuubaa ñu dem nag ba liggéey bu rey ba mu doon liggéey nag maanaam euh, sëriñ Tuubaa ci xéwal yi ko yàlla defal mu fay ko si nag lu kawe njortu la suñu Amadou Raasi ñaan waxoon ni ko sa doom ji jamono bu feeñee dana dana dajeeg sangub jamono si ñuy wuy ji ab wooteem lay bokk te kenn du ko si ëppale te xool suñu Amadou Raasi ñaan ba muy wax loolu Cheikh Issa ganeegul àddina mu ganee fi àddina bàyyi Cheikh la ko waxoon bàyyi Cheikh Issa la ko wax ci diggante bu gudd nu mu tuddoon suñu Amadou Raasi Ñang bàyyi Cheikh Issa sëñ Ibrahima jenn sëñ Mor Diène ñoo gën ko xam sëñ Ibrahima Diène mm. sëñ Mor Baraan Diène sëñ Ibrahima Diène yooyu yëpp histoire bi xañ na dañ koo tënk ngir mm. Mm. jataay gàttaayu waxtu wi lii tegtale mayam yu kawe yooyu te ñëpp wax ko moom daa wax ni sëñ Tuubaa wax na ni liggéey bii nga xam ni Cheikh Issa mi moo koy liggéeyal di sukk di raam di yëkkati addiya di ma jox nee na kenn àttanu ko ku dul man nee na ku mu ko defaloon saw fan yem. ndax moom xam na xam na dara jàmm. waaye moom mu confirmer ngëneel yooyu ndax nee na suñ tubaab daa tàllal ab loxoom ba mu jeex. mu takk ma fa. ku sab loxo mënut a sut loxo Sëñ Tuubaa mënoo tekk garaat yi ma Sëñ Tuubaa takkal. mi ngi sant. dëgg la parce que nawut boppam waaye mi ngi sant. xam na ne ki mu doon liggéeyal. am na amma bi ni'mati rabbika fa haddis. dëgg la te loolu lépp nag si xidma la ko amee. xasal mm. mafaaxira mm. isa jana zu karam. Mm. faasabil xurbi wa si mm-hmm. la ko. dëgg la la la ko amee. dëgg la boo demaatee si biir. Mm-hmm. ñi ko wax bari na. Hmm. boo demee Sëñ Mbàkke Saani Sëñ Mbàkke Kanni Buso ngeen hmm. xam nga am xam ne wàllu la hmm. waajuram dafa ñaanoon ni du am doom ji feeñ te nekkul wàllu sëñ Buso ah, waaw nga xam doomam ji feeñ nga te si dëgg ba rek moo xam jigéen la moo xam góor la si yàlla moom moo bind si Cheikh Issa ci leetar bu gàtt bi mu waxee waag dane ah leetar bi nag maa ngi ko jëmee ila Cheikh ñu ne ko kan mu ne Issa Diène imaamul muridina wa raisihim moo ko bind laa ilaa daan ne xad samia man laazama bil xadim annahu laa yalfisu illaa bil xaq nee na képp ku yàgg a tàqoog sëñ Tuubaa yàgg ngaa dégg ci làmmiñam mooy Isaa da du wax lu dul dëgg dëgg la nuru turandoom wa a anta qulta naa ci taxizuuni wa a ilaa xayni min duuni qaala subhaanak maa yakunu li an aqula maa laysa lii bi xaq mhm. Isaa turandoo nee na du ma wax lu dul dëgg dëgg la Sëriñ Tuubaa nee na ko nag Isaa wax lu dul dëgg mu dolli sa ne wa innahu yunaaji rabbahu Isaa janna laylu mhm. bu demee ba guddi gi lëndëm këris mhm. day dëyaale ak boromam dañaan yàlla yëkkati sa Isaa jën mu dolli sa ne wa annahu yakunu fawqal jiil que Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mhm. ne suñ tubaab daana nag bëgg du muy naan naan xiisa yàlla na nga kawe yi mhm. ne Cheikh Abdou Khadir Jeylaani kawe wàllu xam ne loolu ab tënk la yooyu ngëneel macha allah ñu wax si moom tey macha allah boo tegoon maam Cheikh Anta Gaawaan yaakaar ne ci kii la suñ tubaab dëgg la boo jëlee suñu affaire teg ko da yaakaar ne ci moom rek la dëgg la kon ñoom seen kilifa dëgg la moo mat kilifa dëgg la ñoom itam ñu futtiku liggéey mhm. am ab cër dëgg la ñun nag kon liñ si mën a jànge mooy jéem a xeeñtu seen i jeexit dëgg la te fexe ñu itam cër boobu ñu xool ñu luñ ci luñ ci luñ ci mën a jëriñoo dëgg la dëgg la ñoom jëriñ nañu ba noppi macha allah waaye ñu lan lañ leen di sagale mhm. daa mel ni kon loolu moo tax jamiye bi taxaw dëgg la mbooloo bu mel ni dëgg dëgg dëgg la jërëjëf sëñ Mbàkke euh, li nga leeral am na solo dëgg te loolu mooy jubluk bis bi defuñu journée culturelle wala defar ay livre parce que lii ma tee nii dañ koy def ay mille di ko mayee jaayuñu ko dañ koy maye néew na ci journée culturelle yi waaye bi dañ koy mayee kon du Cheikh Issa la ñuy wane déedéet moom feeñ na bu yàgg li am solo mooy ban reflet lan lañ war a jàngat ci Cheikh Issa ci époque bi mu assisté ba ngërëm lu mu am da koo liggéey loolu mooy wane ni maanaam nit lu mu am ci àddina liggéeyam moo ko koy may uh-huh. moom lu mu am ci sëñ Tuubaa da koo liggéey ba sëñ bi ne lu ma romb mu naan ma bu fàtte Issa loolu jëf la lu miir yi dañ doon wax noonu ak sëriñ bi waaye day gi def lu mu gestu rek Cheikh Issa ko fa samp mooy lu mu méngoog jamono lu jàpp ne ne borom Tuubaa ko moom mu dem wutali ko indil ko ko. Eh, maanaam. Mhm. sëriñ Saliou daa wax ne. sëriñ Issa daa amoon tawféex ci sëriñ Tuubaa. Mhm. dadaa daa def lu sëriñ Tuubaa bëgg rek. Mhm. bu gestoo gis ko. waaw waaye moom itam daa woon nag dafa amoon sëriñ Issa xel la amoon macha allah. maanaam. danaa dugg si kër gi di laaj ba xam lan moo fi manqué. Mm-hmm. bu ne ko lu nekk si biir réew mu gaaw jënd bu dee lu nekk bitim réew. dégg naa daan na neexal ay bëkk nekk sax. ngir laaj yéen lu manqué ci kër si. waaw <laughs> bu ko defee nag léegi lu mu rek bu nee nii ñu ne Issa. ndeysaan sëñ Saliou nag nee na. Mm-hmm. nee na sàkkari dem ba naan bul fàtte Issa ak waa këram nee na jubluwu si. Mm-hmm. mu fàtte Cheikh ndax du ko fàtte waaye nee na day bëgg di ko fàttaliku yàlla di gën a yokk dara jàmm maam si sa noonu la taabir boobu la ko la ko na waxul bul fàtte mm-hmm. daa bëgg ni ko dee ko fàttaliku mm-hmm. ndax ay martabaam di gën a xanaa loolu war a sëñ Ibrahima Diop Masad ci way ba mu naan ama adayaahu la tuxsa ala ahadin yàq nutq bil fami aw bil xat bil xalam ay na kenn du ko wax kenn mënu làmmiñ mënu ko tudd bés nangam nangam dëgg la dëgg la jërëjëf sëñ Mbàkke mu am solo lool xam nga bis bi itam ren ci marraine yi soxna aji maam Bousso Mbacke moom i tamit euh, xam ngeen taxawaayam ci njabootuk maam Cheikh Issa Diène gépp ginnaaw bi nga xamee ne euh, dara jaale nañ ko euh, njabootuk maam borom maam Cheikh gépp ak sëñ Afia loolu yaakaar naa danañ ci ñëwaat ci kanam tuuti ci programme bi ndax maam Cheikh Anta dinañ ñëw ak sëñ Abdou Lahat Mbacke Aziz waaye itam nag ci bis bi xam ngeen dana ci am ay waxtaan yu am solo yoo xam dana am ci bis bi muy le 28 dimanche incha allahu taala le 28 janvier fa fekk si ses damay ñëw ci sëñ Alioune Badara Cheikh Alioune Badara Badiane euh, moom Serigne Babacar mu kaboro ku tudd Daaru Salaam di nga ko tudd ndax taxawaay bi nga xam am na ko fa euh, mu teewal ko fi ndax moo bëggoon a ñëwal boppam yàlla dogal mu yabal ko damay ñëw sëñ euh, sëñ Alioune Badara door na ñëw ci ma Cheikh nag mu dara sëñ Abdoulaye Aziz laataa ñuy dem ci soxna maam Diarra Cissé ki nga xam mooy soxna soxna keneen Ndour moom sama sama sama sama sama sama sama xarit la ndax euh, Pastef jim am ci soññ ci soxna yi ci liggéeyal maam Cheikh Issa Dieng gis nga ngërëmul sëñ Tuubaa maam Cheikh hmm. bu jaree sibooru siboorul bu jaree raam-raamal fexeel ba jot ci ngërëm bi hmm. Cheikh Issa daam ngërëmul borom Tuubaa hmm. te ngërëmul borom Tuubaa daa jar lu ci àddina lu waay diwut fexeel ba am ngërëmam moom daa xam lool rek di raam di sibooru ba jot ci li mu jot léegi nag yow it siboorul maam Cheikh Issa lu mu coppati ba nga jot ci rek loola yaa ko moomal sa bopp kon Serigne Alioune Badara ñu bàyyi la kàddu gi bala ñoo ñëw ci euh, Serigne Abdou Lahad Aziz ak maam Cheikh Anta Samb jërëjëf auzu billahi sali alim min iblis sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi alil azim rabbi li sahri sadri wa li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngi dellu sant yàlla buur bi ngi julli di salmal ci sangob sang yi Seydina Mohamed alayhi waaye ñoo ngi ñaanal saahidul fadilati alxalifatul am. tarixatil muridiya Serigne Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir. di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. di ko ñaanal di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba. waaye di am mbégte tey ziyaare it ki nga xamante ni mooy suñu bunt mm-hmm. ci sëriñ Touba di suñu bunt ci sëñ gaawaan mm-hmm. muy sëriñ Babacar Mbacke si dixuxul mu kabaro mu sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar moom maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak gaawaan sëriñ Amadou jërëjëf ci kàddu yu jotale yi macha allah ñu ngi am mbégte bu baax ci mm-hmm. kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk njabootu maam Cheikh Issa Dieng yi fi teew njabootu sëriñ Afia njabootu maam Cheikh Anta soppe yi taalibe yi bàyyiwuñ kenn noo am mbégte bu baax tey ziyaare ñëpp tey ñaanal ñëpp jàmm mm-hmm. euh, tey santit yàlla bu baax ci tawféex gi mu ñu defal mm-hmm. tawféex gi mooy jataay bu jotale bii ñu fekkee mm-hmm. jataay bu taaru bii macha allah jataay bi nga xamante ni da génnul daray diine ndax ku tudd Cheikh Issa di nga tudd diine di nga tudd riis gi mu riisoon ci yoonu murit ak tawféex gi ko Serigne Touba defaloon nga xamante ni boo tuddee jumaay njaarim sa xel day dem ci moom ca tàmbali gi nga xamante ni sëñ Touba joxoon na ko liggéey bi mu woyal ko waaye ba liggéey ba noppee it buñ tuddee imaam si xel yëpp di leen si sëriñ Afia Mbàkke mi nga moo nekkoon imaamu njaareem fa tabaarakallaahu mu doon tawféex nag ndax li tax mooy dañ ko dippee yaari nit yoo xamante ni mënoo leen a tudd te tuddoo yoonu murit muy maam Cheikh Anta ak sëñ Afia Anta ñoo bokk wenn wajur kii soxna Anta Njaay ko mais ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk sëñ Mamadou Anta Sali mhm. ñoo bokk soxna Anta Ndiaye Mbacke mhm. waaye it mu doon loo xamante ni tawféex da cee làmbu mhm. mooy que ne damay gis man sama gis-gis yu bari jataay bu ñuy tuddee boroom gaawaan rek dañ koy ciy boole waale sëñ Afia bëri na ay édition yu bari yu may fekke damay gis lu mel noonu loolu nag day wane ne ñoom ñaar kenn lañ woon euh, sëñ gaawaan nag doonoon magam nga xamante ni li ñuy wax ci yoon wi moom ci lu bari loo xamante ni ñëpp xam nañ ne yàlla jagleel jagleel na ko borom gaawaan mhm. ci tawféex gi mhm. ci baddil bi mhm. ci barkeel bi di li kun fa yaqunul maarid wala si yan xu ne seetaanal marit suñ tubaab moo ne ko woon seex mu ne ko mbàkkee mun na ko ak loo mën di defit ak foo mën di nekk seetaan mu mënul ci dara ndax def naa ci yow barke def naa ci kun loolu nag tawféex la goo xamante ni amoon na ko moom borom gaawaan sëñ Touba jox ko dëkk bi nga xamante ni moom la gënoon bëgg ci dëkkam ginnaaw bu ñu tuddee Touba nga xam ne moom la njëkk a sanc ci dëkk boppam boole ko juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent may ko dëkk bi daal koy ber jamono jooju wax nañ ne bu maam Cheikh Anta tuddoon duudu sax ku ñu beret ci yoonu murit jox la daraja duudul nañ ko la ñuy wax waaye Cheikh Anta gi mu tuddoon a tax ku am cër rek ñu ne seexal nañ ko defal nañ ko lim defal seex baarakallah mm. mooy li mbokki mu wax léegi rek Sëriñ Tuubaa moo mel noonu mm. mooy defaree noo xamante ni ku mu laal rek nga barkeel ndax barakatil firxaatkat wa sukur rabbi lazi xat xaadalikun fa yakun jëmm la joo xamante ni lépp loo xamante ni laalal na ko nit rek kenn ku ci nag bu ñu la jooyalee say wax rek yaakaar naa dañ naan yow yaa yoonu murit dëgg la kon Cheikh Issa mi nga xamante ni tey jii moo ñu fi boole dajale ndax bis bii ñu woote damaa dégg léegi suñu Cheikh Anta Samb wax lu am solo mooy que ne njabootu Cheikh barak barakallah seen ràññeeku man li ma gis seen ah. ràññeeku mooy ah. dañoo bëgg yoon yi ba nga xamante ni loo tudd ci Cheikh Issa sax hmm. am na yëg-yëg booy ñoom ndax damaa dëkk ak ñoom maa la ko wax damay jooyalante ñoom ay daayira di dem seen i jataay waaye man dañ may yëgloo sax hmm. ndax léeg-léeg am na ngont bu may dem ak ñoom hmm. su ma ca teewee li may yëg maa ko xam man yàlla kese ndax dañ may yóbbaale ndax dañuy faral di wax naan otoraay bu gaaree boo yéegee sa morom yi yëg keneen yéeg rek otoraay bi yóbbaale te loolu ñu def ñu cey daal kenn ku ci nekk dañuy yëg loo xamante ni sa jëmm la nga cay yëg ñun dañ koy yëgandoo ak yow mm-hmm. kon loolu tawféex la gu Serigne Touba defal borom jenne mm-hmm. kon nag noo ñaan bis bii yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm amiin amiin ak sëñ yàlla defal ñu ci ak tawfiq bu yaatu amiin amiin amiin euh, di ci ziare njabootu Cheikh Issa Diène gépp amiin nga xamante ni mën nañu ne mm-hmm. euh, boo tuddee sëñ Abdou Latif rek mm-hmm. yaakaar naa ne xalifatam am mi nga xamante ni moo tënku ci yoon wi mm-hmm. ñu ngi ñaan suñu borom doole ko fay yàggal lool ak mboolem njabootu Cheikh Issa Diène yëpp euh, di sant nag bu baax a baax a baax ndax it jotaay bi li liñ ci sàkku woon rek mooy dañu fee yebal bi ñu yëgee nit njabootu borom gaawaan na ci mm-hmm. ak njabootu sëñ aafiya mm-hmm. ñu ne ah teew leen fa mm-hmm. teewaay goo xamante ni mën ngeen faa teewal waa Daaru Salaam yëpp la kon nag loolu tawféex la goo xamante ni dañ noonu dinañ ko ubbee jotaay bi rek ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf Cheikh Aline jërëjëf Cheikh Aline Badara Badiane muy jàmbaar lool ci kër sëñ Babacar eh, ñu am ci moom mbégte lool ak teewaay bi eh, xam ngeen ni ren ni ñu ko waxee léegi rek ci eh, daraja ji loolu yaakaar naan lu am solo la ñu ngi nuyu bu baax sëñ Ibrahima Bey ñu ngi koy sant bu baax ci coordination bi euh, xam nga li Cheikh Alioune Badara wax dox dafa neex dama koy faral di wax sañ Moussa Ndiaye Male damay taal sama oto di déglu ji si karam ci biir bayit yi dafa koy ràbbee xuqa waaye buy ràbbee xuqa Cheikh Issa ngay gis mm-hmm. xaw ma nag lu ko taw fee xele loola mm-hmm. waaye buy wax Cheikh Issa borom lëgën day jël ay xadiisuhum dhikru muxnin naafixin samadin di ko dugal ci biir di dugal ay abiyaat yoo xam da lay taxawaayu Seex Isaa ci Sëñ mm-hmm. nga xam ne da koo liggéey liggéey bu sell mm-hmm. yàlla na sama borom sàmmal ko mi ngi waajal bis bu am solo sax la treize muy bisu Seex Isaa itam bis yi na bari Sëñ Tuubaa dafa war bari ndax yàlla yàlla ci bopp moo wax ci alxuraan ne li ma defal jaam ñëpp waaye ñu néew ci ñoom ñoo may sant mm-hmm. sëñ ñëw moom opté sant moo tax ñu ne dañuy sant sëñ Touba yàlla moo demandé moo déclaré wa qalilun min ibadiya shakur li ma leen defal lépp lu waaye lu ñëw ci yéen ñoo may sant sëñ bi moom jëlug ñooñam di sant incha allah ilal jinaa ne aydu <laughs> sëñ Moussa incha allah ñu ngi koy waajal bu baax a baax euh, sëñ Ibrahima ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax sëñ Mamor Mbacke moom sëriñ Abibu daf may faral di wax ne ma njabootu Cheikh Issa man nuñ nosoo jaaxal na mm-hmm. tey am pëseef loolu mm-hmm. xam naa ne ni ñuy def xaalis ak daraja moom kéemaan la mm-hmm. foo mën na dem koo mën a tudd baax na waaye boo ne Cheikh Issa mbir mu ne kala ca boole. Hmm. kookaay sa pilis boo roofee rek mu daal di ñëw. dëgg la de fi ne bala nga ko xam nga yor ay yeneen chargeur bëgg mu chargé yeneen téléphone yi day lànk. chargeur Samsung Samsung rek lay chargé. chargeur Nokia Nokia lay chargé. bu iPhone iPhone lay chargé. ku ne fañ la branché foofa ngay branché ngir chargé. dëgg la de soxna Diarra Cheikh Issa moom tuwaat kan la kon su ko defee maam Cheikh. ñu ngi nuyu baax sëñ Sidi borom dibiteri bi ah, Alaaji Mbàkke dina ah. am loo bëgg ci moom rek jaare ko ci jenn séerase jenn séerase ñu ngi koy sant baax di ko gërëm mm-hmm. euh, ci taxawaay bu am solo nañu ay xar nag non tey moom incha allah yaakaar naa dana am solo ah, <laughs> euh, maam Cheikh ndeysaan la 11 novembre 1902 la sëñ Touba dellu si dëgg la dëgg la dëgg waaye sëñ Modou Lo Dagana moo nu wax ni keroog ba sëñ Gaawaan di ñëw Gabon sëñ Mun Njaay Jóob la àndal mm, mm, mm, bi ko sëñ Touba gisee daa jóg taxaw maam Cheikh Anta ñëw mu róofa ko teg ko ci dënd bi mm-hmm. nee na bi Seex Seex Anta jëlee boppam teg ci mbaggum sëñ Touba. Mm-hmm. sëñ Modou Lo Dagana dana dal sëñ Modou Ndiaye Diop ne dal. Mm-hmm. ñuy jooy. Mm-hmm. sëñ Moussa Ka nee na bi ma leen laajee ne ko sëñ Modou Lo lu waraloon jooy ba dana cofeel gi seen diggante. ndeysaan dëgg ne ñaar ñi roofaloo dañoo bëggante. dëgg la nee na loolaa leen daaneel sëñ Modou Ndiaye Diop a àndoon ak sëñ Gaawaan sëñ Modou Lo dëgg la tey ñu jël dara jooju. dëgg la jox ko sëñ Gaawaan. day mel ni delloo waat nañ. dëgg la waatu la. xam nga sëñ Gaawaan moom ku ko tudde mbir rek tudde nga ko sëñ Touba ñëpp a maase xam ni sëriñ bi moo ko faggu soxna maam a siise maam si Anta bi muy ganee àddina poroxaan sëriñ tubaa dafa bi dafa ñëw bi mu feeñee ci baayam sëriñ Mor Anta Sali sëriñ tubaa nag moo wax ci baayam ayaa man baa ahkaami yaa xaw su dalili ayaa xutb yaa naa moo su yaa xutba zel jili sëriñ Mor Anta Sali ku mat a waxtaane la anta imaamul jili la ko sëriñ tubaa wax yaa ji yaa yow sa jamono yëpp yaa leen kawe kooku nag sëñ Tuubaa moom weesu na di feeñ ci ci fu mànk mm-hmm. léppam la yàlla matal mm-hmm. maam Cheikh Anta nag sëñ Tuubaa nag dafa ñëw ci baayam boobu ni ko gan feeñ na goo xam ni bokk na ci ñin fàggu ngir ànd ak moom liggéey bi mm-hmm. suñ borom digal na la nga bindal kob téere digal na moom ba bindal kob téere digal na sàmb tukkulóor ka sa doomi ndey mu bindal kob téere mooy ñetti téere yi sëñ Gaawaan njëkk bind njëkk a takk téereb digg bi sëñ Tuubaa la ndejoor bi sëñ Mor Sali càmmoñ bi Sàmba ko Ka kon sëñ bi lu waay doon ci moom moo la ko doonale ci boppam moo fàggu léppam sëñ Tuubaa kon tegtal gi yonent bi tegtal Cheikh Issa sëñ Tuubaa man damaa gëm ni yonent bi bokk na ci ay fay yim fay sëñ Tuubaa Cheikh Issa ci la bokk ndax doo duggee biir kër Cheikh Issa gisaat fi seex yoo xam ne tey jii doole ji ñu am dalee leer ni Cheikh moom ku sëñ Tuubaa fàggu rekk la yonent bi fayee sëñ gaawaan nag. day loo xam ni ku sëñ Tuubaa bëgg bëgg na la. dëgg la ku sëñ Tuubaa xool xool na la ku sëñ Tuubaa jublu jublu na la. Mhm. te Cheikh Issa nag day day day làmp rek comme comme ni ko sëñ Ibrahima Diop Machar waxee. Mhm. day day day làmp ci yoon wi. misbaaxu tariqati yi. misbaaxu tariqati yi. Mhm. kon bëgg sëñ Tuubaa nag. Ah, ah, doo ko bëggee doo bëggee sëñ Tuubaa faw nga bëgg borom Samb. faaw nga bëgg maam moo borom Daaru Moxti. faw nga bëgg maam Cheikh Anta. faaw nga bëgg sëñ Yaafe faw nga bëgg sëñ Masamba. ndax sëñ bi nag moo faggu bokk ak ñooñ li mu bokk ak ñoom faggu taalibeem faggu ñëppam mhm. Cheikh Issa nag ku déggoon loolu la mhm. ndax lu laal ci sëñ Tuubaa rek yemaliwu kook dara dëgg la mhm. sëñ gaawaan nag doon koo xam ni tawféex moom ci sëñ Tuubaa sëñ Abdul Xaadir nee na sëñ bi daana toll foo xam ni kenn du ñëwee àgg ci moom dañuy jëli maam Cheikh Anta fu mu mën a ne ci àddina dañ koy jëli moom rek ay àgg su ñëwee sëñ bi xam nga lu ko lu muy wax wa maa tawfiiqi illaa billaah doy na sëkk li sëñ yoroon ñu ni kum ko njëkk a jox ci àddina ñu ni kim ko njëkk a jox mooy rakkam ji mbokkal benn baay te ñaar fukki at la am booba wala mu manqué kon te tegtal na ak bëgg nag dëgg la dëgg la dëkk bi ma njëkk a am ci àddina sanc ko te mu ni Daaru Salaam ak Touba dama koo sanc ngir yeesal sunna si bi sanc ko ngir dekkil sama dëkki làkka daaru salaami rabbi wa Touba. dooy mhm. gis xasida goo mën a dem ci àddina benn dëkk bu sëñ bi di jiital Touba bu dul daaru salaam amul mhm. daaru salaam du waa daaru ak moom mhm. dëkkub sëñ Touba la bu mu def la mu fa def rafaatale ko rakkam nag ji mu bëgg ba jéggi dayo dëgg la waaw ndax wama tawfiqi illa billah la daan wax mbërum sëñ Touba mëne su ko daan ma ngay takk ndombaam ca pays diwaan cheikh moom sëñ bi da ko bëggoon ba mu ci sago loolu yàlla sëñ bi tamit doon koo xam ni lu mu jublu rek. mooy jubluk suñu borom. ndax sëñ Tuubaa du bëgg ci lu dul bëgguk yàlla. du tànn lu dul tànnuk suñu borom. li nga wax léegi sëñ Alioune Badara ñu ngi nuyu baax. Euh, sëñ Babacar ku baax la. bëgg maamam. ndax ñun moom euh, euh, ay dañuy matérielu sëriñ gaawaan ba yàlla dogal ndax sëñ tubaa ku muy sa bunt sëñ sëñaam hmm. ngay wiiri wiiri fonko sa bunt kenn xamul sa bunt ba. Hmm. déggoo sëñ Tuubaa. waatul bu yoo tamit abwaa bi mhm, mhm. taalibeeb Seex Isaa nag doo ko doo ko yeewoon ci kanamu Sëñ Tubaa jenn lay wuyoo dëgg la loolu la yàlla defal Seex <laughs> la bu Sëñ Tubaa toogoon Seex Isaa toog mhm. nga ni ko diw mu ni jenn <laughs> jenn yaram du wuyoon neneen lu dul <laughs> loolu nag yàlla lu mu fayee Seex Isaa ah, ñoom dañoo ni ni Sëñ Tubaa ni Seex Isaa mel ci Sëñ ñoom noonu la noonu lañ mel ci Seex Isaa loolu la yàlla dogal ndax ku ku bëgg a natt sa bopp ak ñi la Sëñ Tubaa booleel xoolal sa digganteeg Sëñ Tubaa dëgg la waaw li ngay wax ni digganteem ak Sëñ Tubaa faw mu leer la du sëñ Tuubaa du sëñ sa digganteeg moom waaw waaw faw sa digganteeg taalibe yi day leer maa la ko wax waaw jërëjëf jenn jërëjëf jenn seen mu mel ni euh, aji maam Bousso moomu nga tudd léegi mhm. wajuram mu jigéen ak si Abdou Latif bokk ndey ak baay mhm. soxna Fat Sarr moom Cheikh Ibrahima Sarr jasaaka di wajur Cheikh Abdou Latif kon mhm. Cheikh Abdou Latif moom sëñ Tuubaa la ci ndey sëñ Tuubaa la ci baay léppam sëñ Tuubaa la toogaayam bii nag wane na ko ndax dañoo wax ni nit ku nekk du nekkee ca bopp njaboot ga wala bopp nekkee ca bopp kër doo ko xoolee ca kër gi rek danga xam ke nekk ca bopp ba doon moom nag baax na lool bëgg na baayam lool bëgg na sëñ Tuubaa lool waaye baax nay bokk lool dëgg la ndax nii njaboot Cheikh Issa gépp nosoo topp ci ginnaawam Cheikh mhm. Issa rek la ñuy gis ci moom te mat sëkk Cheikh Issa yàlla na fi yàgg loolu tamit amiin amiin lii daal ñu tudde maam Cheikh Anta ci gàttal mhm. sëñ Ibrahima Bey jërëjëf dëgg la nosu dafa baax mhm. noosu taalibee Seex Isaa fii ci réew mi nag ak ci bitim réew mhm. damaa ànd ak aji maam Bousso Milan mhm. ñu dal kër sii di Fall mi ngi fi woon léegi mhm. di taalibe Sëriñ Sidi Xay moom sëñ Basiiru Jenn yàlla dogal nag kër Seex Isaa du xasee ni Seex Isaa la ñuy joxoñ kenn du xam kuy sëriñu kenn Seex Isaa rek la ñuy dëgmal te ku ci nekk rek kuy sa sëriñ ci biir kër Seex Isaa da nga ko xam da nga seq moom la nga seq moom waaye du Seex Isaa nag ñoom Seex Isaa rek la ñuy joxoñ loolu mooy yëfi ndax dëgg la. du xàcc jëm feneen deesu la gëm di gëm keneen sa diina doy na xarnu bi na lim fi seexi daam ñi sant jenn nga xam ni seex moo du bamba kooku nu roora kenn moo seexal seexi saa jenn joxoy june mamadou moo seexal seexi saa jenn mm-hmm. joxoy june mamadou lamin jenn njuumaay jinne xar baax ya seex bamba xaroon ca Isa borom la gën monsieur fu koo xaral keneen ci siisa Cheikh Moussa kaneena xar baax ya Cheikh Bamba xaroon ci Isa ibnu Mariama monsieur fu koo xaral keneen ci siisa Serigne Ibra jenn Serigne Mor jenn Cheikh Bamba taxoon ba seen néega daawul seen barkala bokkum bi Moussa bi jaay Aïssa wa xiyani dunya wa xura buusa sëñ bi xasida googu doo koy jàng léeg-léeg nga jàngoo fu fu mel ni Milan waaye doo àggale bokkum bi Moussa ngay wax rek fekk naa Baye Sall sekk naan wa ah, ku baax ka ma ne ko loo ci jublu mu ne ma ah taalibe Cheikh Issa yi moom bàyyiwun kenn nag Cheikh Issa <laughs> kon nag euh, sëñ am ñun waa Daaru Salaam gépp la ko dalee ca xalifa Serigne Modou Mamoun ba ci caatum maam Cheikh Cheikh Anta di xalifam sëñ Abdou Góora dëgg la mboolem buntu kër maam Cheikh Anta ñu ngi waaj buntu kër yi sëñ Afi yëpp ñu ngi waaj dëgg la taalibey ah, ñu ngi leen di wax ni leen bis ba le 28 dëgg la dañ ko tuddee maam Cheikh Anta dëgg la sëti nekk Daaru njaboot soxna Oumy Jenn mm-hmm. tàmbalee ci Serigne Galas mm-hmm. jaar ci sëñ Bas ak mbooleem njaboot ju jigéen yëpp ñoom itam ñu ngi waaj ah, ngir bis ba incha allah ah, le 28 daal sëñ Ibrahima Bey yéen ñi yor fédération bi comité bi da mm-hmm. ngeen xam ni da ngeen koo tuddee Touba ni woon mooy ba mu ci njareem mhm. mooy sëriñ Afia kaay ñu jaamu yàlla mhm. ma dëkkaaleeg yow ngay sama seere mhm. sëriñ Afia la ko waxoon mu tuddee ko Ahmadul Moxtaar Ñang Serigne euh, Amadou Mokhtar Niang moom mhm. affaire la ko tudde mhm. tudde maam Cheikh Anta Cheikh Seydou Mokhtar Kountiou mhm. yàlla dogal ñu bokk ndey ak baay sëñ Tuubaa boole seen lépp muy benn kii ki sëñ Moussa Ka ba muy wax nag naan kii ñu daan jiitee jumaay kabbar kii ñu daan dimbali kii ñu daan dimbali ñu may koppar dëgg la ma maam Cheikh nag may koppar baax na lool julli baax na waaye may koppar baax na <laughs> kon nag ñaari doomi soxna Anta Njaay yooyu macha allah ngeen boole bis bi def ngeen ngi waaj ngir la 28 ñu ñëw ci sëñ Abdou Lahad lañ doon tijji rek ngir bëgg mu moom tam di nit ku baax di borom xam-xam taxaw taxawaay bu mat sëkk ci Daaru ak kër sëñ ak daal wax dëgg yàlla sëñ Yaafe hmm. sëñ sëñ am hmm. ñun dañ ko bëgg xam tax waaw sëñ ku ko bëgg faaw nga bëgg Cheikh Issa dëgg la faaw nga bëgg ndax Cheikh Issa nu mel sëñ Tuubaa la dëgg la dëgg la nu mel rek sëñ Tuubaa dëgg la dëgg la kon kafaani shara hmm, li baax lépp yàlla jox na ma ko jukkil Cheikh Issa muy exemple dëgg la ci ni meloon mboolem ku mbokkal askan wi. dem nga xam ni kii mooy. seen cër. ci askan wi ñenn ci Sëñ Tuubaa. dëgg la mu seexal ay seex yoo xam ni. na askanu naar ak askanu géer ak askanu ràbb ak. Mhm. askan woo dem ci àddina. seex Isaa defar na ca ku ñuy sukkal ak raamal. dëgg la te wàññul ab barkeem dara. dëgg la dëgg la yàlla ñu ko yàlla fayal. nuyu sëñ Sidi Naar bu baax. dëgg la euh, suñu suñu sëriñ suñu mhm. xarit. dëgg la suñu wëllëre. dëgg la nuyu aji maam Bousso nag. dëgg la ndax biñ demee Italie nag. Mhm. yàlla dogal na fédération seex Isaa bi fu ñu a dem ci Italie. ñoo jox addee ji ëpp ñoo koy tatagal ñoo koy safoo dëgg la donte murid yépp ko bokk sëñ Abdou Samatum sëñ Tuubaa yi waajuram dëgg la korog ba mu sëñ Abdou Samat wàccee 1948 Cheikh Issa jël mbar seexi saa jël otoom jël jële fa ña newoon mbar ñëpp mhm. oto oto yi moo indi wala sëñ Baara jenn daal wala see Issa ñoo yebal oto boobu ak benn jenn ànd ak ñam ñam nekkaloon kër sëñ kër sëñ bi samat yëpp ñëw Touba dëgg la barkeem ak ni mu tolloon ci yoonu mu kenn mu ko macha allah ñu ngi jégul baax jërëjëf jërëjëf maam Cheikh asalaamaaleykum jërëjëf wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf maam Cheikh jërëjëf kaddu yi na solo kon sëñ Abdou laat euh, ñu bàyyee la kaddu gi rek ci turu Serigne Saliou Afé yàlla na yàlla yàggal ko fi loolu te mu wér Euh, moom imam la seen Abdou mii ndax at mu nekk ma ngay jiite ca Chicago waaye ren rek moo ñu jiite foofu ndeysaan euh, ca kër sëñ Touba ga muy borom xam-xam bu rafet di ku mm. baax ku mën a yaatal euh, ñu ngi woote ci turu njabootu sëñ Afe gépp ñu bàyyi la kàddu gi mm-hmm. teewe ci jataay bi bu tedd bu màgg bii nga xam ne moom la yàlla dogal ñu teewe ko ngir di ko waajale bis bu màgg mm-hmm. bis bu rëy fi nun mm-hmm. muy journée bi nga xam ne moom la ñu waaj ngir di ko defal sun maam maam Cheikh Issa Diène mm-hmm. radiyallahu anhu wa nafaanlahu bi barkat yi mm-hmm. euh, te mm-hmm. ñu dara jaale ko sunu bunt yu tedd yooyu di maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru ak maam Serigne Afia Mbacke ak limaam Moutaqin euh, noo ngi siyaare bu baax Serigne Saliou Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ko wér amiin amiin amiin naka loolu ni lañ koy siyaaree njabootu euh, borom gaawaan yépp mm-hmm. ni ko maam Cheikh waxe la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mouhamadou Mamoun mm-hmm. ba ci kër Serigne Abdou Góora mi nga xam ne mooy caatum borom gaawaan mm-hmm. ñoo ngi ñaan suñu borom mu dool leen sàmm ba fi ñu bëgg a liggéey liggéeyu sëñ Touba bi ci seen kër atu waajur suñu borom àggale ko fi di am mbégte bu baax nag ci jataay bi jataay bi dafa am solo lool ndax rek far fare woo diglu ndax nee naa man li ma fi doon wut far ñaari jëmm yi rek doy ci ndax ñoom ñaar ku ci nekk xam naa sa taxawaay ci Daaru Salaam sañaan ma xam waajuram bu baax ni mu demee ni mu tuddee Hamidoun ñu tuddee ko sëñ Amoum sëñ Mourou Mamoun la waajuram amee Mourou Mamoun dëgg la dëgg la moom <laughs> ñëpp xam nañ ko moom itam du jar du bi doyoon ngeen dëgg la wallaay wallaay nii ngir ngir teew rek ngir sëkk ñu am mbégte bu baax nag ci tudde gi ngeen ko jagleel ñooñu ndax ni ma ko waxee léegi rek ci bi ñuy def euh, yëgle bi mhm. wax ne dangeen ngeen di jublu rek ngir suuxat mhm. li nga xam ne moom la mag ngi jëmbatu mhm. jëmbatu leen ko waaye da ngeen di suuxat ndax ku ne xam ne diggante maam Cheikh Anta ak maam Cheikh Issa Diène ku ne xam ne diggante maam Serigne Afia ak maam Cheikh Issa Diène waaye maam Cheikh Anta dafa wax ci wax ji lu am solo mu ne maam Cheikh Issa Diène Serigne Touba la bëggoon rek di ko liggéeyal moo tax képp koo xamante ni bokk nga ci njabootu Serigne Touba. Mhm. ñooñu du leen du leen du sëriñ bi lay gis ci ñoom. Mhm. moo waral taxawaay bi mu amoon ci ñoom. dëgg la mu amoon ko ñoom. dëgg la. Euh, jëmm yi ngeen ko tuddee nag. Mhm. muy maam Cheikh ak Serigne Afia. ñoom dañu kenn ci sëriñ bi. xam ne yàlla dafa doxal ñoom ñu am seeni waajur bu jigéen ci boppam. soxna maam Anta Ndiaye. amoon taxawaay ci sëriñ bi. taxawaay booba itam. Euh, wala fii dañuy dañuy faral ne Serigne Touba dañuy defe ne ñemewul bor ndax dafa am fay mhm. kon dafa mel ne euh, nu mel ci ñoom wala nu mel ci moom mhm. ci ci ci moom sëriñ bi mhm. lépp njëlbéen nga mi ngi sosoo ci soxna Anta Ndiaye dëgg la ndax ku ne xam ne ne moom ba sëriñ moor mi nga xam ne ku ne xam ne ne góor yàlla la sëñ Cheikh Anta wax na ko ci Euh, madron bi nga xam ne sëriñ bi defal na ko ca ba mu koy jàngal mm-hmm. xarul rek mm-hmm. doy na ci sëkk dëgg la te sëñ Mor kat du moom peut-être kii kilifa mm-hmm. la dëgg la la a Momar Cissé dingiraay doon wax ca way wa naan innal xuróona bi laa sun yaa asimatahu fii raaxat fii raaxatayka fayan xaadu maxan xuudaa li anna ahmada bamba kaana waaliduhu baxaral xulóomi namirul maa i mawruda kooku mooy sëñ Mor Anta moom mi nga xam ne ku ma samar xam-xam boo sëfee kër sëñ Mor ngay sippi dëgg la dëgg la damay faral di wax ne boo gisee sëñ Mor Anta Sali njabootam ñu laxas di jàngi hmm. ñu laxas di sàkku ci xam-xam ñëpp bu ñu laxasee sëf seen kër la ni sippi si dëgg la dëgg la ndax booba moom mooy nekkoon ki nga xam hmm. moo nekkoon mooy war xaadi mu Mor Anta Sali hmm. ndax bi gën a rëy ndax booba mboolem xam fu noo ni fu noo ni ulum xam-xam yëpp booba ci këram sëñ Mor lañ koy jàng si dëgg la dëgg la sëñ Mor moomu nag moom mooy ki nga xam ne moo formé jëm yu tedd yooyu dëgg la dëgg la di sëriñ Afee maam Cheikh Anta mhm. moo waral bi sëñ moo demee ba toll ci tolluwaay bi mhm. ak daraja ju kawe ji ak ni mu toll ci boroomam mhm. woo soxna Anta am lu mu ko doon defarloo bi soxna Anta di ñëw fekk sëñ moo di wax ak soxna Anta di wax ak ku baax ki Seex fa mu jëm di ko wax yaakaar ju ko yaakaar moom ku baax ki soxna Anta dégg loolu xam ne kat sëñ moo ni mu ko xamee ci ak mbaax ak ragal yàlla euh, ku mu ba toll fii mu nekk nii di di di boroomam di jox boppam

bëgg sëriñ bi ak topp gi waroon ndax sëriñ bi li ko magee dafa bari ndax ku la magee fukki ak juróom hmm. ah, bari na euh, magee na lu bari waral suñ gaawoon masaana topp sëriñ bi war ci hmm. fas wi hmm. mag ñi ci pénc yi bu neen borom bi pénc dañ naan doomi Anta Njaay ji lu muy def topp magam ji dafa war a dem jàngi nee am na bis kenn ci euh, kilifa yi woo ko di ko wax lu mel noonu fekk sëriñ baa ngi koy xaar suñ gaawoon daw dab ko bi mu demee sëriñ bi sëriñ bi laaj ko na ko lu mu la doon wax mhm. mu ne daf ma daf ma doon yedd ci topp gi ma la topp sëriñ bi ne ko loo ko tontu mu ne ko dama ne ko jaral na ma ko mhm. sëriñ bi ne ko bis nekk boo ko doon na ma ko bis nekk day sunu àndi fii mhm. nee na sëriñ bi Seex am ci lu ñu gis ci say baatu na ma ko jooju rek la jaral na ma ko kon moom euh, loolu lépp nag mi ngi jar biinoo ci soxna Anta Ndiaye mi nga xam ne moo leen boole ñoom ñaari jëmm yi sëñ gaawaan ba mu defee noonu noonu la yóbbaale sëñ Afia demee noonu ci sëriñ bi tofloo Serigne Touba tofloo ko moo waral Serigne Afia fu mu mas nekk Serigne bee ko fa nekkuloo mos a tàqalikoog moom benn yoon ba bi Serigne bi dem ci géej gi lan seetlu fu mu tàqalikoog moom te daf koo yabalaat ca mu Daaru Salaam mm-hmm. ñibbisiwaat dellu dellusiwaat Daaru Salaam fekk booba maam Cheikh Anta mi junj na ko léegi mm-hmm. eh, sëñ am julluñu na ko rafaatale na ko mm-hmm. maam Cheikh Anta mu yabal ko fa mu delsi ba léegi fa mu dëkke woon jabaru si jaafe ña nga Mm-hmm. waaye sëriñ bi daf ko wax ne ko yow nag boo demee digal naa la bul fa nekkee lu la ma bëggoon boo amoon jot nekk ca ca loolu laay nekk loolu ca loolu laa bëgg nga nekkam fa mm-hmm. mooy ngay jàngale alxuraan moo tax bi sëriñ aa fi ñëwee mm-hmm. ca loola ko sëriñ bi digal ca loola la daal di nekk ba li ab ci njabootam yu mag sax dafa foofu lañ gënee àddina mu ne sëriñ moo sëriñ Mouhamadou Farmata mi nga xam ne mooy ab taawam ak sëriñ Xaasim Mbakke nga xam ne ñoo ay doomam foofu ci Daaru Salaam fa lañ gënee àddina ba ni sëriñ bi dellu siwaat ci géej gi bi sëriñ bi ñibbisee ci géej gi nag la door woowaat Serigne Afia mhm. ngir mu ñëw fekk si ko ba ni Serigne bi demee gànnaar ba ni Serigne bi ñëwee njaarim mhm. yëpp mu taf loo ko mhm. waaye li ma ci soxla ci diggante euh, maam Cheikh ak Cheikh Issa ci sëñ sëñ sëñ sëñ maam Cheikh mi waaye Serigne Afia ak Cheikh Issa ci boppam ndax dama dégg ci biir waxtaan bi léegi wax ne Cheikh Issa daf daan dakk daf daan àgg sax ci neexal bëkki néegi ngir xam bëggu Serigne bi loolu daan la ko diggam ak Serigne ci li mag ñi nettali boobu Cheikh Issa mi ngi woon xabbaan defe naa nekkoon na xabbaan mm-hmm. jamono boobu fa lay jógee di fekki bi njaarim mm-hmm. bi ñëwee fekk sëriñ bi nekk ci xalwatoom yooyu nga xam ne bu ñëwee day julli rek kenn du ko gis mu delluwaat ci mm-hmm. fekk booba it sëriñ yaa fi mooy toppatoo kër gi aajo yi kër gi am na am na am na am na lu ci lu ci lu ci soxla ci waa ci waa kër gi bi maam dem ci sëriñ na ko dan maa wax ne boobu ba léegi ku baax ki génnul sëriñ na ko waaw génnul de far maam Cheikh Issa yem ci waa kër gi ku ñëw di wax aajuy kër gi maam Cheikh Issa daan ne sëñ Afe kon de bay boo ma joxee addiyee ji ma doon wax ñi jox ko ndax looloo ko looloo tax mu indi ko mm-hmm. mu indi woon ko nee na bi mu ko waxee da fekk muy waxtaan sëñ Afe na ko waa waa tund woo yi dan maa laaxaan si ak maral aw maral woo xam ne dëkk ba maral na ko mm-hmm. ñu doon sàkku ma ne woon naa dem ba ci ku baax ki mm-hmm. ma wax ko ko ngir mu ñaanal ci yàlla ndox mën a am si ñaa fi daane ko loolu kay kon jëruk fekk àgg ci ku baax ki comme fañ nga aajo yi kër gi demal li ci des yow ci sa aajo man maa koy faj man <laughs> ndeysaan keroog bi maam Cheikh Issa Dieng duggee ci suuf xabaan yi àgg rek ndox ma daa fees dellu bari lool mhm. loolu ki ma ko nettali nee na waajuram moo ko ne moo ko fekkee nga xam ne dafa mujj neen doonoon aw waxtaan bu rëy njaare ñu maam Cheikh Issa ak sëñ moom seen biir doy na waar de kii faj na aaju yi kee faj aaju yi waaye lépp nag Serigne Touba rek moo waaye naka noonu itam noonu la njabootu sëñ Afe dem mhm. njabootu maam Cheikh Issa mhm, maa ngi ko doon junj ci lu bëree bëri mhm. ku ne xam ne ne feeñ nekk ne ca ca ca xañ mbayaar mhm. jabaru sëñ fa sëñ Mourou Farmata sëñ Mourou Farmata mii xali sëñ Aafi jabaru Cheikh Issa la fa fekki woon mhm. sëñ Bassirou Dieng ñu dogal ko fa ba fi mu ne am na ay njabootam yoo xam ne faral leen moo fa nekk moom ki sëñ Abdou Wadoud bokkal ndey bàyyi ñu doog wax Mouhamadou Habib Mbacké foofu lañ ko denc xañ mbayaar lañ ko denc te diggante xay mbayaar ak Daaru Rahmaan kook sëñ xaas ñoo digaloo dëgg la te loolu jamono boobu bépp ñoom ñu ngi fa fekki woon jamono maam man ñu demoon ci sëñ Saaliw sëñ Aafi xalifa bi mm-hmm. nettali na leen ko mm-hmm. sama waajur daana ko yebal ci sëñ Baara Jeen mm-hmm. muy bari man mii di wax ak Euh, li ma tuddee xar mi ma tuddee maa ngi jig ci nett gi fii sax sëñ Baara Dieng moo ko jox sama waju at yi dëgg la ndeysaan kon loolu yooyu yëpp rek yaat ba fi ne damay mën a wax ne ñoom kóllëreem gi yi gën a a yaatu ci ci Mbàkke mhm. njabootu yi ak nga xam ne mooy caatu sëñ Afi yaakaar faa dem mhm. léeg-léeg nekk te déggoo ñoom ñuy wax. ñu wax si dëgg la dëgg la dëgg la kon xam naa comme macha allah macha allah Mbacke jërëjëf Mbacke incha allah jërëjëf jërëjëf ñu sant ko baax euh, moom na xam nga dafa solo ay ay sirru yoo xam ne doy na kéema ah, mu gis damay taataan ci euh, ko fi loolu te wéeral ko may ko mu yàggale soxna maam jaara damay daal di ñëw ci yow euh, directement rek ndax xam naa li des ci waxtu yu bareetul ndax ñi ngi bëgg a waajal julli gi ma bàyyi la nga ñëw ci jotaay bi fii ñu toog mënoon nga fi toog def liggéey ba mat te dana méngoo ak doxinu yoon wi te ni ñëpp danañ ko rafetlu ndax sa taxawaay bàyyi la rek nga ñëw ci kàddu yi su ko defee ñu door a dem ci soxna Kiné Ndir aousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala hadil amin seydina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin barke boroom Touba mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu sunu sang yi fi toogal di leen ziar Eh, di ci jiital xalifa bi di sëñ Abdou Latif mm. di ko nuyu bu baax di ko ñaanal yàgg ko ànd ak wér mm. noonu la ñuy nuyoo sang yi ñu fi toogal bàyyiwuñ kenn ci yéen jenn ñu ngi leen di nuyu waaye beneen nuyoo sama sëriñ sëñ Abdou laxat ndax sama sëriñ la ñaari yoon Mbàkke Baal la mm-hmm. gannaaw bi mu doonee eh, surtout sëñ Afia dafa doonaat sama sëriñ ndax Seydina Ali moo ne woon man allamaka harfan waahidan fa huwa mawlaak mhm. te jaar nañ ci ay loxoom bi ñu tolloo ci jàng xam-xam moom ak sëñoo Omar Touré eh, jamono bi ñuy waree jàng xam-xam jaar nañ ci moom mu def ci ñun lu baree bari loo xam ne duñ ko fàtte kon Mbacke ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Mm-hmm. sëñ Amidou ñu ngi lay nuyu. jërëjëf nuyu sëñ Cheikh Anta di nuyu Serigne Mbacke suran mm-hmm. ak mboolem kilifa yi fi toog yëpp. di ñaan bis bi ñu jëm su borom yóbbu ñu ci ak jàmm ak salaam ñu fekke ko te tal ko waaye eh, ci jotaay bi liñ fi jot a wax sëñ nga ñëw ko ci diggante. Euh, sëñ Afia ak maam Cheikh Anta sëñ Mbacke Sourang ñëw ci maam Cheikh Issa mi nga xam ne moom la ñu wooteel bis bi waaye jël nag tur bi jox ko ñaar ñi nga xam ne jamono fu ñu toll dañ leen war di waxtaane rawatina nag jamono bi ñu koy defee ndax le 25 la ñuy màggal Poroxaan le 28 la lañuy def journée bi kon dafay mel ni Poroxaan gi day gàttandu bisu maam Cheikh ñu tuddee euh, sëñ Afia ak ak ak ak maam may nuyuwaat sama sang bi sëñ naar mm-hmm. ndax euh, olof euh, wala arab yi ñooy wax ne wa aatul buyuuta bi abwaabiha booy dugg ci buntu jaaral ci bunt bi te mooy bunt bi ñu jaaree ba mu jokkalee ñu ak njabootu Cheikh ba cofeel gi ñu amoon ci moom wala yéene gu ñu amoon ñu mën koo mottali kon jenn jërëjëf euh, damay wax ne nag sëñ Abdou Lahad sa maam ju baax ji di maam Anta dañu war jamono ju ne ñu koy waxtaane rawatina ñun ji rawatina ci bis bu toll nii ndax wax nañ ci maam Cheikh Anta duñ ci delluwaat li ko sëriñ bi defal waaye ndey day fàggul doom te sonanta Njaay dafa fàggul waa këram woykat ba ba muy way maam Cheikh Anta ak maam Afia daf ne maam Anta Njaay wàcc nga am nga yaaram am ilimaan gàlliwu leen ci maaram dafa mel ni ñaar ñooñu mu am rek doyoon na ci sëkk ndax wax neen léegi ci maam Cheikh Anta keroog bi sëriñ bi jógee Ndar war a dugg saxaar ngir ñëw ndakaaru gi war a dugg gaal ngir dem ci tukki bi bi mu taxawee war a teg tànkam ci saxaar gi dafa gestu ni mbooloo ma fa taxawoon ñëpp tàllal leen ma ñaanal leen tàllal leen ma ñaanal leen jooju defoon aal góor gi ma tabara mbaay mu gestu ko ni ko mbàkke fi nga taxaw ne tàllal leen ma ñaanal leen ku fi ma sa tollu danaan ñaanal leen ma ma dem te dellu ca la ko geesoo moom ku tedd ki mm. ne ana ana ana Cheikh Anta mu ne ko maa ngi nii mu ne ko mayal ma ko way may maam Cheikh ni ko fii nga taxaw loo xalaat mm-hmm. rek may naa la ca fukk ak ñaar mm-hmm. loo xalaat rek douzaine laa la cay may mm. ci lépp lu mu daan am par douze la ci daan am mm-hmm. Euh, li nga wax léegi maam Cheikh Anta. Euh, Cheikh Anta Samb nii. Mhm. Sëñ Tuubaa moo bëggaloon boppam. maam maam Cheikh Anta. Mhm. mbëggeel googu. Mhm. dafa yàgg seen diggante. li ma wax léegi ci ne wayjur wu jigéen day fàggul doom. Mamanta Ndiaye li li li li sëñ Abdou wax léegi ne. keroog bi ku tedd kii di Xaadi Maamor Anta Sali waajee ngir daj ak boroomam. di dénk boppam sëñ Touba loola day wane ne loo baax baax baax baax xam nga ne feenu jëm mm-hmm. la fa am suñ borom sëñ Touba xaadim rasul la ko jox looloo tax moom li muy baax lépp mm-hmm. mu jëlaat yaakaaram jooju delloo waat ko ci doomam ji macha allah di Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul mm-hmm. te li xew këram këram rek la mos a xew te dara xewul ndax Seydina Ibrahim hmm. yaakaar naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, suñu borom subhanahu wa taala dafa royloo yonent bi hmm. Seydina Ibrahim ñu ko jaaral ci moom hmm. euh, Seydina Ibrahim moom lii xew kër maam Anta kër kër xaadi maam Anta Sali xewoon na këram ndax dafa yor soxna yàgg ak moom loolu amuñ njaboot mu dem ba yàgg soxnaam ni na jël jaamam bi nekkoon ci kër gi may ko borom këram ngir mu am ca takk ndeer jigoo jigéen jàpp ko bi mu demee ba gis ne kii toll na diggante mu ne xajootul ak moom ci kër gi mhm. daal di koy digal mu génnee ko ne ko ndax xajootuma moom ci kër gi mhm. loolu nag yaakaar naa ne jigéen ñi xam nañ li may wax Seydina Ibrahima daal di ko fay jëlee yóbbul ko màkkatal mu karama macha allah bi mu ko fay bàyyi daf ne ko koo may bàyyil fi mu ne ko bàyyi naa la sa borom mhm. bàyyi naa la ak sa borom googu mu toogoon ak boromam moo tax tey ñi dem màkk ñëpp yeneen fi yàlla yóbbu ñu fa demagul boo demee indi zam-zam ndax jigéen ju toogoon déggoon ndigalul borom këram ma waraloon loola waaye eh, Euh, sëñ am mhm. bi mu dalee mhm. kër xaadi Maamar Anta Sali ndax Maam Anta Njaay yàgg na ci kër gi mhm. te gisul leer mu tàggu sëriñam bu tedd boobu dem naawel fekk ji fa Maam Asta Waalo mi nga xam ne Maam Asta Waalo Maam Anta Njaay ak xaadi Maamar Anta Sali seen ñetti baay bokk baay mu tàgg ko ngir jëli soxna jaara ndax gis na ni jamono jooju leer ngi ko daan gand guddi gu nekk léegi di ko gànd ba fajar dootu ko gisati mm-hmm. mu ni ndem mënta jaar ci man naa wuti ko mu jaar bu ñëwee ma barkeeloo mm, ci li alxuraan di wax ne lantanaa loolu bi raxataatun fixu bi maa tuxi boobu mu dem mm-hmm. ci tënk rek mm-hmm. wax ak mbokkam moom wax nañu guddi gi mu yegg see naawel dafa séddoo kaamil bi ak soxna jaara mu jël surtout baqara ba mariam soxna jaara jël mariam ba naasi bi ñu xëyee fajar la ko wax aajoom ndax bëgg a jël soxna jaartulaay mariama yóbbu ca kër ga leer googu mën a jaare ci moom macha allah waaye gis nga la ko ca yàlla defal dëgg la bi soxna jaara ñëwee rek moom it mhm. wane ne kii ma fekk si kat mhm. du ko jàppee wujj mhm. waaye ndey laa koy jàppee mbokkum daara laa koy jàppee moo tax waykat bi doon ko way ne ko bu xëyee nuy ji ay dëkkandooram nuy ji njëkke jigéenam soxna Anta Ndiaye mbokkum taala Anta moom maaram teg ca ne looloo waral borom gaawaan di rakki bambay jaamam jaam ci zaahir ak baatin moo waral mu dib xaadam kon loolu ñun yaakaar naa ne lañ cay jàngee sa ñaami ngir bañ di bañ a bañ a téye kàddu gi lu bari waaye daal nañ xam ne eh, xayrul umuri awsatuha lii mhm. lu ñu doon barkeeloo la rek ci jataay bi xam ne lu baax boo ko fekkee mhm. da fexe ba am ca nag lii nga wax léegi xaw ma Cheikh Anta ko maam Cheikh Anta ko wax mhm. eh, ci ni man lu baax moom fu ma ko mën a xaaraan dama koy xaaraan su ma lay sibooru dama lay sibooru su ma ba am ca la nga am waaye nag ñu xam ne ñun suñu suñu Abdul Hakim la ku xam na ko ndax wala dane bay wun a am na ak déem waaye nag lu baax du doy Sëñ Tuubaa dafa a eh, joxal ma soxna Kiné yi eh, dafa jot fi mu ne nii eh, soxna Kiné ma bàyyi la rek ci soññ ak soxna yi nga xam ne ni ñoo war a ñëw ci bis bi su ko defee ñu yaatal ko comme niñ ko defoon daaw yàlla nañ ko defaat at yu bëree bëri auzu maa ngi ziyaar képp toog ci plateau bi di ziar tamit ñi nga xam ne ne ñi ngi ñuy seetaan fépp fu waay nekk maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. macha di ziar suñu waajur yi nga xam ne ne ñoo tax ñu mën a toog fii. Hmm. soxna May Mbàkke hmm. soxna May Jenn. Hmm. mu maam Cheikh Issa. ak euh, soxna Mbène Jenn mi nga xam ne ne mooy sama waajur. sëñ Baara Jenn jur ko. ñu tuddee ko soxna Mbène mu Cheikh Issa. di waajuru. aji maam Bousso moomu ngeen tudd léegi. macha allah. Mm-hmm. ndax sama yaay sëñ Baara du ko tuddee soxna Mbeen. ba pare jox jël ko jox ko mu yar ko. kon bu ñu tuddee aji maam Bousso si jataay bi kon man foog ma ziyaar ko. Mm-hmm. may soññeewaat suñu mbokk soxna yi comme ni ma koy waxee rek at mu mm-hmm. nekk. suñu mbokk soxna yi ñu ngi leen di ñaan boo leen ñëwee si jataay bi yiw bi. ñu ngi leen ci ñaan. ngeen yiw. ndax fu ay kilifa di daje. booy ñëw danga war lu sol lu jot. muur sa bopp jël greffage yi bàyyi ko ci kër yi ñu ngi leen koy ñaan ngir yàlla macha saa yu ñu leen ko waxee nag da ngeen koy defaat ñëwaat ba foofu muuru boo duggee ci biir saal bi tegaat sa greffage ñaan nañ leen ngeen bàyyi greffage yi sa kër ya te muuru ndax jataay bi moo ko war dëgg la asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf soxna Kiné ñu gërëm ko baax muy soññee bu am solo euh, ci kàddu yu am solo yooyu at mu ne mu def ko yàlla ñu ko def at yu bari ñu ngi nuyu baax euh, sëñ euh, Goraka EDK ñu ngi koy ziare baax macha allah di nuyu baax sëñ Ibrahima Diop moom it di ko ndokkeel ci coordination bi di leen wax ni bis bi nag thème bi ren jàmm la. jàmm nag bu ñu ko waxee rek dugg na ci njabootuk Cheikh Issa Diène euh, loolu nag incha allahu taala sëñ Modou Fall Diène mooy traité tam bi incha allah ak Serigne Gana Messere Makhtar dana wax ci alaaka bi nga xam ne ni dox na ci euh, diggante maam Cheikh Anta ak Serigne Afia rawatina ak Cheikh Issa Diène euh, ñi tam tam rendre hommage Serigne Saliou Touré Serigne Omar Serigne Mor Tandine Serigne Sidi Tandine ak Serigne Bara Cissé soxna Bali Mbacke As Darou Salaam ak soxna faatu Mbacke jenn soxna gàdd buso muy soxna Barakatu Bousso eh, ak ki nga xam mooy soxna Ndey Mbàkke ak soxna Anta Tine am na itam ay commerce ay eh, eh, partenaires yoo xam ñi nga ànd ak ñoom ñoom 18 safar macha allah ñoom sëñ Ibrahima bee ñu sant leen baax a baax bis baa ngi noonu le 28 janvier lay doon dimanche fële ca CICES muy bis boo xam dañ ciy fàttaliku dundu ak liggéey ak jaar jaari mam maam Cheikh Issa Dieng ren ñu dara jaale ko Serigne gaawaan ak sëñ Afia waaye itam nag soxna aji maam Bousso ni ko maam Cheikh Anta Samb waxee kenn du ko fàtte ci bis bi ndax taxawaay bi nga xam ne am na ko digganteem ak njabootug maam Cheikh Issa Diène sëñ Abdou Samad la ak sëñ Abdou Latif euh, ak maam Cheikh Issa Diène ñoom ñaar ñoo ko séq uh-huh. waaye itam mu am taxawaay bu am solo damay wax léegi rek nii bi sëñ Abdoulaye di tudd ma ne sëñ Baara Diène rek doyoon na ci àddina si ndax yor naa ay leetar yoo xam ne ay récompense lay doon ci waxal sëñ Baara Jenn mu dimbalee ma nangam te loolu man maa ko yor loolu day wane ne rek euh, lii sëñ euh, Mbàkke doon wax sànq ci tab gi moo am ah, ñu gërëm bu baax nag waa journée bi bi sëñ Sooy Jaara ñu ngi koy waaw sëñ Sooy Jenn ñu ngi koy ziar bu baax a baax wallaay wallaay wallaay sëriñ suñu wëllëre wallaay wallaay euh, xam naa daa jël big bi di noté buñ paree danañu wax ñaata pour cent lañ am waaye nag ñu sant bu baax sañ Moussa Diop sañ Moussa Ndiaye mu ubbi ak sëñ Balla Dior macha allah xaside yi am na solo lool ni nga ko waxee léegi wakkoon bu Moussa gërëmaat sëñ Mouhamed Lamine Jenn nekkoon kilifa jataay bi sëñ Abdou Latif kàddu yi mu ubbee am solo lool euh, téere yi nga bind am na solo ci ñun dana dimbali ñëpp dafa fekk may xalaat nan war nañ créer benn musée boo xam dañ ciy jàngale reflétu maam Cheikh Issa Dienne ci kaw suuf ndax li Sëñ Tuubaa waxoon mm. di leen jox di daje incha allahu taala bis baa ngi noonu bëgg nañ huit heures ne xam leen ak teraanga bu ñu noppee na dugg ci salle bi def li nga ne ni moonu fa indi muy ki nga xam ne ni mooy maam Cheikh Issa Dienne incha allahu taala dimanche lay doon le 28 janvier fële ca CICES di ci woo mbokki taalib bi di gërëmaat alaaji mbàkki yu fay bu baax a baax ci yaatal bi fii ci diwaanu Masaalikul Jinaan ak bis bi itam ak rafetlu gi nga xam dana koy rafetlu ñi nga xam ne ñooy organiser bis bi di journée culturelle Mame Cheikh a Diène soxna yi fi daje yëpp ñoo leen di siyaare ak mboolem mbokki taalibe yi di leen ñaanal guddi jàmm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ya man la ilaha khayru yaa man ataani doona sëriñ xayroo salli wa salli wa tubaarik sarmada ala lazi samayto muhammad wa ali wa sahbi wal anbiya واشكرتي مقدماتي ربيا وهو الذي سميت بالبديع يا من قبلت بالسماء كبتي يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون دير خيره سلي وسلي وتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدأ وهو الذي سميت بالباي والي وسبي بالانتهاي جرام مام سيغنت يا جنبما يا تار يا تبت جم ينن بي فبب ينب فرسول الله يدك سرين توبا دم الولي ادي مام سيغنت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 là gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 Production le leader dans son domaine. Ah, am lépp tawfeex sëriñ bi bi.